merci d'être ak nous ñu ngi leen di nuyu euh, gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média exactement 9h29 euh, tey tombé ak lundi 21 euh, décembre 2020 ñu ngi gërëm équipe yi nga xam ñoo fi nekkoon ci suba ak léegi fajar gi dès 6h du matin d'abord RFM ak RFM matin ensuite info du matin ak rédaction bu télévision Futur Média xam naa ca kanam daañu leen gisaat ci jotaay boo xam ne dinañ ñu ko présenter ci wolof alors pour quelques quelques semaines euh, on euh, comme euh, ci fête puisque Noël dafa jot déjà ci télévision Futur Média démb ci guddi la ñu suñu Noël en fête Teranga Sénégal la ñu ko tuddee désormais on vous offre beaucoup de cadeaux ci ambiance boobu la ñuy demee ak yéen tout en continuant émission yi nga xamee ñi dañ leen koy jagleel bis bu jot bokk na ci yeewu leen jotaay bi li nga xamee ni bis bu jot maak sama gars yi dañ leen di proposer ay sujets yu am solo mais en même temps di leen di divertir euh, bu ko defee euh, seeni i xol mën a féex euh, ñun ñëpp a ngi fi ma petite Awa Gaay Mamadou Ndiaye Corombaar Ndiaye ak Maymouna Gueye leen tamit mu ngi fi bijou comme day nampal day yéex a yegg si <laughs> mu ngi doog a pare mais elle nous rejoint aussi tout à l'heure comme chaque matin ñun ñëpp a fi pour gunge leen fi ba 11h on a préparé beaucoup de sujets yu am solo parce que yeewu moom xam ngeen ni ñaari façon la yeewu ci nelaw mais en même temps yeewu ci addina nag baax na euh, ñu leen di euh, jox par exemple ay mbir yu am solo ci wàllu droit wala walu économie comme chaque lundi ak Maymouna Gueye euh, bonjour Maymouna. bonjour Pape Cheikh comment tu vas ça va ça va ça naka sa week-end. ça va ça se fait lundi yombul pour yeewu ah. waaw mais bon après ça dépend si tu as passé un long week-end de repos moom des fois da ngay yàq. férié normalement week bi. ajjuma la tàmbali sax wala samedi ndooy. c' est que tu en fait moi. la jël waaw je pas travaillé le vendredi. ah parce que xew donc du coup j'ai eu un long week gis naa photo yi de. ah bon. <laughs> après xew bi loo def. après xew bi nalaw j'ai j'ai dormi le samedi j'ai dormi le dimanche. est ce que tu dormir nga yam. waaw ah, dormir rek <laughs> waaye de may mun a temps yi moom sa loxo ngi ci sos xoolal loolu rek mag joo France allo bonjour mooy sénégalais yàgg France yooyu rek ma ne ko waaye eh, bonjour mu ne ma la noir la comment il s'appelle encore ma ne ko la noir Mario était pas noir borom Baar Ndiaye mu ne ma non bébé c'est un c'est un enfant moromu la ma ne ko la noir Awa Gaye euh, mu ne ma awagaay xam naa ko ma ne ko bijou mu ne ma wuu marié ma ne ko la noir la noir xam nga buñ la laajee nit sur le coup sa xel mi day dem man fàtte naa beneen noir ébène bi fi ne ma xalaat xalaat mu ne ma euh, tamit def sujet yu am solo yi ma ne ko sujet yu am solo ñoom ñëppay def sujet yu am solo de euh, réfléchir réfléchir mu ne ma la noir la noir la la noir la noir ma ne ko ah may mun a gay mu ne ma voilà donne-moi son numéro de téléphone ma ne ko non elle n'a plus de portable <laughs> allez ci kanam on parlera euh, droit. économie euh, économie ok ouais, voilà économie. on va parler du taux de croissance xam nga Sénégal dafa nekkoon si lancé boo xamante ni on était parti ba am ay taux de croissance de 6 cent mais malheureusement nag par rapport à la période euh, de Covid ñu am euh, taux boo xamante ni dafa demaat ba wàcc egg ba zéro. mooy. Euh, mooy li waa ANSD di liggéey. non non ñoom kii la ñuy def recensement statistique. Ah. voilà taux de croissance mooy économiquement est-ce que ñun dañu jëm kanam. Mhm. est-ce dëkk bi daal dafa naayi wala dañu am ay dette wala vraiment est-ce que. Ah. économiquement on sait bien est-ce que doxle nañ est-ce que yëpp a ngi dem. Mhm. donc xam nga demoon nañ si euh, après alternance bi demoon ba yegg mhm. loo xam ne suñu ko yegg ay euh, pour cent donc ren ñu doon prévoir 7 virgule 5 pour cent mais malheureusement on est à 0 virgule pour cent. Ah. de taux de croissance li ko waral nag mooy pandémie bi su kanam Pape Cheikh dinañ si waxtaan ak benn spécialiste voilà donc taux de croissance c'est toujours bien quand di mhm. euh, ñëw ci ay mots di ko expliquer euh, yenn termes yi am na nit yu ko dul comprendre donc y a que les professionnels yu ciy liggéey peut-être ñoo mën a comprendre yenn termes yi donc on parlera taux de croissance surtout en cette période de pandémie ak euh, Maymouna Gueye dinañu waxtaane itam beneen coow boo xamee ne judd na fi bu yàggul ak Corombaar Ndiaye muy coowal suppression wu euh, ville yi maanaam dañuy dindi ville yi euh, ay Dakar par exemple dootul exister il paraît euh, donc on a donné la parole à un juriste qui va nous expliquer davantage mbir moomu leen naka la demee ce sera ak Corombaar Ndiaye Amadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. Sénégal yëpp a laaj est-ce que Ibadou dëgg nga wala Ibadou kii fo. maintenant après lan Ibadou man xaw yaa ko gën a xam bàyyi leen bu ngeen di génn ci télé yii nee ngeen xamul leen lu bëri te yii ñuy waxtaanee moom ngeen di waxtaane ci kër yi arrêté leen. non problème bi mooy. Hmm. man def mënuma def différenciation ci kuy ibaadu ak ku ko nekkul. c'est-à-dire. <laughs> c'est-à-dire que xaw ma ban définition la ñuy. yow leer na la ni fii Sénégal ku muuru ñu ne ibaadu nga. ku saqal siqim dagg sol sa pantalon mu nekk pantalon du Moriba ñu ne la Ibadu nga. waaw moo tax ma ni kon xamuñu. kon coro man tey yow laa yow laa yeewul de yow laa yeewul de yow laa yeewul tey de bu ma yëngal de yow laa yeewul tey de. ah baax na. yow laa <laughs> nii la toogee moo tax mënu maa def njarka bi yow laa yeewul de. sama tëddaay bi boo ko seetloo xam ne ci télé bi laa fanaan biig bëgg xaalis rek. dëgg la fii laa fanaan moo tax ma toogee nii. dëgg la te nii laa nar a bu yàggee sax mënees na maa tëdd ci wet sama rakk ji nii de laa xëyee tey. te yow rek laa yeewul tey yow laa mandil tey. dëgg lu leer laa la wax. donc nee ñu ndax ibaadu nga wala doo ibaadu tontu ma ci nee ma wiiw noo rek. mais moo gën nga naa ma non tu sais. parce que man ban définition laa ci am man xaw ma d'accord je suis pas Ibadou damay damay damay. da ngay sellal waaw loolu. waaw yow atel dëgg. baal ma àq jàmm loolu gënul yomb. baal ma maa ngi jégalu. <laughs> bon ñu lay nuyu Thioro. maa fay El Hadj euh, nuyu ñu ñu bokkal plateau bi ak téléspectateurs yi sa un plaisir de vous retrouver euh, comme euh, tous les matins dans Yeewu Leen effectivement ni nga ko waxee xam nga ni actualité bi également lu jëm ci wàllu suppression ville yi daf ci bokk bokk na ci itamit énième report li nga xamante ne moom moo di élection locale yi donc am ñoo xamante ni fi mu toll ni tembe jàpp nañ ni farata bi déjà du supprimer ay ville mais dina ci bokk xam déjà kañ la élection locale yi xam nañ ni euh, juriste bi ñu waxal dem na ba jàpp ne sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di mais yi xëj na seen légitimité fi mu toll nii euh, mën nañu ko euh, mën nañu ci am xel ñaar donc yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee ndax bu ñu waree dindi yenn ci ay ville leneen li nga xamante ne yëpp moom moo ciy nekk ci wàllu soubassement on en parle tout à moom daal li mu jàpp mooy les priorités sont ailleurs. man de c'est un truc boo xamante ne j'ai rien compris du tout suppression des villes dootul tudd Dakar dañuy dindi. parce que bu ñu koy ville amatul. lan mooy am kon bu ville euh, amatul. bu ñu ko bu ñu continent <laughs> wala département wala je sais pas. parce que suppression bi dafay. entraîne état mooy am comme Amérique wala man j'ai rien compris. waaw léegi bàyyi après ñu faram-fàcce ko. ah moo gën a wóor de man leeralal leen ma de <laughs> su may def déclic nag damay mel ni ku ci xam dara invité bu ñu toog oh monsieur le monsieur le ministre. <laughs> Euh, pour pour l'affaire de la suppression. xam nga lépp qu'est-ce que vous en pensez xoola barki Serigne Touba xaw ma problème bi nu mu demee. billaahi am na ku ñu invité keroog Madi xaw ma nu kilifa yi xaw ma nan la tudd. Cheikh Bamba Dieye Cheikh Bamba Dieye mais boo ma gisee ni ma ko posé question maa nga poudre takk samay accessoire te damaa am yu baax def sama sañse ba toilette ba ni eh euh, monsieur Cheikh Bamba Dieye euh, parce que actuellement président Macky Sall et ses et ses collaborateurs on parle de la suppression des vies ni laay waxee di làkk yow man musuma gis li ma garaaw man mbaa duñ ma daa suppression de l'animateur <laughs> <laughs> heureusement tay Coro dina waxtaan ak juriste boo xamante ni dinaa ko comprendre mardi soir demain <laughs> dinaa gën a argumenter quoi pour parler de euh, ce problème euh, de suppression des villes ma petite Mado est là. oui ngi lay nuyu. maa ngi la fay. tey indi nga sujet bu am solo. Mhm. Euh, jigéen wéeru li la ñuy waxtaanee pour ne pas dire femme enceinte euh, Bijou Ndiaye ñu lay nuyu. ay <laughs> conseils yu am solo en cette période de froid. et ouais. de pandémie mhm. euh, période bi baax na quand même ñu jox leen ay euh, ay conseils euh, ce sera pour tout à l'heure parfaitement Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yi ak ni ma bokkal plateau bi également comme ni nga comme ni nga ko déggee rek donc dem nañ rencontré ki nga xamante ne moom moo di euh, Rokhaya Thiam donc jotoo waxtaan ak moom li nga xamante ne moom moo di période bi ñu nekkee seddaay bi waaye comme ni nga ko waxee en période de pandémie en même temps yan comportement le femme enceinte yooyu lay war a tenir ñu waxtaane lenn loo ne daf leen di faral di dal nag malheureusement ci période du seddaay mu di euh, éclampsie wala préclampsie donc bu ci kanamee incha allah dinañ ci waxtaan. waaw préclampsie. Mm-hmm. tension bu sonalee jigéen dina. pare effectivement wallaay wallaay ah, xorom na malheureusement taux de mortalité bi ëpp ci côté euh, femme en santé yi voilà parce que dañuy ëmb ba pare di lijjanti rek <laughs> wala ñu digal lu lay wax ak sa tànk da ngeen am melokaan tamit lu ñu dal rek yéen ci ngeen waaw moo taxit li moo tax boo ëmbee nga war a toppatoo li nga ëmb rek. ah te ngeen teg ñu ko dinañ <laughs> la <laughs> mais dañ la ci bàyyi on en parle tout à l'heure parce que mu ngi sonal ay jigéen yu bari quand même euh, dem ba tension bi sonal leen ñoom borom xam-xam ñu tuddee ko exclampsie wala préclampsie bon on va parler de ça tout à <laughs> l'heure ak Madeleine Awa ngi toog sama wet Awa gaay how a yu ma baby you good yow de da koy teel a nampal teel a waaye kay elle prend tout son moo tax ñu ne de dee leen soreel soreel njur gi sinon bu ngeen ko soreel lul rek da ngeen di retard <laughs> kii moom soreel nu njuram wax dëgg yàlla elle elle nampal bu ko defee heure émission bi day ñëw waaye xadi mi nga xamante ni dafa jegeel njur gi eh, yii lay indi ay retard ay des fois nga ñëw des fois doo ñëw. Eh, jigéen ju mën góor ak eh, xaw ma nan lañ ko tuddee émancipation am na nu ngeen ko tuddee déedéet am na neneen nu ngeen ko tuddee. émancipation je pense. indépendance. non am na neneen. working yu ngeen xeex fii rek. Euh, parité parité <laughs> parité yéen mënu leen am parité parce que soreelu leen njur gi bu ngeen soree soree leen njur gi nag comme Awa Gaye di ngeen mën a wax parité et à propos de parité ñi muy dem seeti chaque lundi ay jigéenu jàmbaar la euh, la preuve tey ki ñu leen digoon euh, keroog te bëggoon ko wane faf machine ba càng reportage boobu la indiwaat nga demoon seeti ki nga xam ni mooy mairie Ba mu ngi nekk SICAP depuis 16 ans et jigéenu jàmbaar la ñu ngi la ñu ngi la dee nuyu tey euh, Pape Cheikh ak euh, once again di nuyu euh, ñi ma bokkal plateau bi. Mm. di nuyu téléspectateurs yi di leen wax rek comme every Monday we come with a very dynamic woman tey Mary Mary Ba bi nga xam ne mi ngi liggéeyal SICAP am nag 16 years of experience. Mm. of li nga xam ne mooy jënd ak jaay di commer di di commercial comme ni ñu koy waxee si français si kanam tuuti rek ñu indi lan moo tax ñu choose ko pour mu nekk woman of the oui. ok mais commercial defe naa anglais commercial lay wax. Amérique euh, français tam di wax commercial. commercial euh, ma ne xaaral oh, <laughs> commercial commercial commercial. commercial comme euh, si côté jënd ak jaay parce que da ngay gis ñu bari dem nekk di def commerce. di mm-hmm. jaay ak yooyu noonu. yeneen ñu dem ba jaawale ko ak entrepreneurship. ok mu loo xam ne is is very different xam naa si so much ah. ok aujourd'hui I am I maa ngi talk ci wetu aw Euh, because moom mu ngi toog ci fauteuil bi man maa ngi toog ci bras de fauteuil bi man dama yàgg Amérique <laughs> lii ma def sama yaay loolu la gën a bu bu nettoyé saalam ba pare du bëgg kenn toog ci bras fauteuil bi xam naa fi mu nekk xol baa ngi dagg non alors que toog ci bras fauteuil dafa neex quoi c'est comme ñu defar saal bi ba mu baax nga tëdd ci canapé bi wala di jaar je te jure ah. mais bon comme man luy dagg xol day sedd sama xol bi xam naa xol ba dagg na ma nga naan kii na wàcc bara fauteuil bii bu toog si lui sewul ma ne ko sa yow nekku ci yow li jëtti sa fauteuil yu kër te bàyyi jóg sudu fauteuil yi xale gi doog a yeeg si njaay ñu ngi lay nuyu kenn moom nag seen mooy mooy seul euh, journaliste boo xamante ni ci biir yeewu leen bi day woon xale yi nii xale yi ay animatrice lañu moom da koo jàng am ci diplôme c'est ça sénégalais lu mu la ëppalee daf la koy wan parce que xale chroniqueurs yi ñëpp à temps di dañu joxe seen sujet ñu bind ko ci conducteur bi mais moom day bàyyi ba ñëw <laughs> donc imposé ah, ay loi wam mais c'est pas grave ñun xoola fi ñu gis nii xoola ñu dara période yi décembre la ñu nekk bu la neexee xoola nga won ñu ni euh, doctorant nga en communication wan ñu ne li Sorbonne nga jàngee yooyu suñu yoon nekku ci won ñu ni ba ngay am bourse ñu fii dañ doon jàngee ay ibakati ba yooyu yëpp amul problème yàllaa la wërsëgalee nga jàng am diplôme journalisme jàngee ca France ñun nag yàlla moo ñu wërsëgalee ñu jàngee fii ibakati ba moo tax xoola yi ñu sax bëriwul ibakati ba fa la sama yaay jàngee dakk sama yaay laay sagal nii man école laa jàngee xaw ma 2 <laughs> yaa ngi fi fekk ku école Y. waaye <laughs> fee nga ko c'est ñoom école Jean-Claude Jean-Claude Perney de Sorbonne bonjour bisous. bonjour Pape. Pape li nga ma waxal yëpp defuma ko peut-être ma bloqué fee naan ma dañuy def ñaari plateau. dégg naa leen di waaw léegi man ñëw naa bu yàgg waaw di jaay garaaw di armé caméra bi ndekete loolu yëpp kenn waxu ko bu kenn sosu ko am nga noo mel. Euh, Awa Gaye ak Bijou mën nañu toogee fële de temps leen di rejoindre nga leen di rejoindre ma lay décompteel ma ne ko. <laughs> nee ko ñun demuñu <laughs> demuñu kay fii la ñuy toog rassemblement na Antoine yónnee <laughs> dañoo rassemblement te takkuñu masque. ok lii moom jar na annuler émission pour une semaine lépp lu ñu tere rek moom lañu ñu def. rassemblement nañu te takkuñu masque. fii du suñu biir kër fii sunu sunu kër la nag Pape ah, def salon wee fi mu toll nii. salon def fii ngay sa kër seet. <laughs> Eh. ak yeneen nañu def yeneen i <laughs> ah, def sa def ko fi set <laughs> yow xam naa yi ngay def yëpp yow amoo heure. Pape nañ jaar ci sama sujet bi. waaw kon nuyoo waaw xale yi la ñuy waxtaanee. <laughs> bonjour ñii seetaane comme nuyoo woon ngeen ba pare. Euh, comme ni ngeen ko xamee semaine dernière amoon na coow boo xam ne jóg na fi. Mm. Euh, par rapport ak benn euh, crèche. bu benn xale ñàkk bakkanam malheureusement nekkul woon suwe crèche bi encore moins ba su parents yi. Mm. wax nañ ci lu bëri critiqué nañ lu bëri léegi après les critiques nag on apporte des solutions. Mm. ak benn spécialiste boo xamante ne moom petite enfance mooy spécialité am dinañu wax lan la crèche war a am balaa muy tijji. yan matuwaay la ñu war jël ba même accident su amee ñu mun ko gérer nu mu gën a gaawee voilà ba je suis de retour. ah ah. yow ban ngay waxat nii. déedéet. d' accord yow affaire bi da nga ñëwaat. waaw oh, loolu non non on apporte des solutions. on apporte des solutions ngeen njëkk a xalaat solution ngeen bàyyi ba. après ba problème ñëw yéen euh, problème da di dem ak émotion. après bu ngeen demee ba xalaat ngeen doog a wut solution. ça ça c' est un problème sénégalais je dirais. parce que mm-hmm. que ce euh, si crèche yi que ce si inondation yi que ce soit si coronavirus yi. Mm-hmm. dans tous les problèmes on remarque que ñun sénégalais dañuy dem ak émotion bi problème bi amee dañuy ñëw ñun ñëpp tëb wax coow ci. Mm-hmm. mais su passé on passe à autre chose c' est comme si dañ koy fàtte booy xool inondation bi dañuy bàyyiwaat ba mu tawaat ba nit ñi duggaat ci ñu soog ci wax alors de trouver des solutions. Euh, on changement changement global la nar a nekk commencé ko par nos dirigeants nga xamante ne dinañ teg ay barrières yoo xam ne par exemple ku nar a ubbeeti dinañ la déterminer ay conditions yoo xam ne soo ko amul kenn du la jox autorisation ba problème yi dootul am. voilà donc on en parle euh, boobu na euh, boobu noonu en sport comme chaque lundi moo doo ngi fi moom na xale bu bëri kersa la bu jigéen ñi bëri la da ngay gis mu càtt xaw a càtt noonu. non day càtt de seetlu ngeen loolu. Modou ah. bul dugg foofu. kii bu ko yóbbu deuxième plateau. ko fan yii de. man la ñuy sànni wala moom. championnat d'Afrique de judo. Euh, on parlera football. Euh, week-end bi ce qui s'est passé en Angleterre Sadio Mané et tout ça. ci kanam. tout à l'heure ñëw gannaaw moom la nuyuwee yi. nañu waxtaanee week bi nga xamante ni mooy Sénégal drapeau Sénégal jóg fële ca Madagascar ak Magny Ndiaye mi am décroché médaille d'or bi ci 41e édition championnat d'Afrique bu judo ak médaille de bronze bi ñu fa am ak Monica Sarr Sagna mais surtout euh, taxawaay bu am solo bi nga xam ne Sénégal am na ko ci ay athlètes foofu ci championnat d'Afrique bi loolu nag fierté la fierté Sénégal la dañ ñëw waxtaanee aussi euh, Sadio Mané mi def buzz bi fële ca euh, Angleterre ak biom bi mu dugal mais surtout après bi bi célébration bi nga xamante ni xam naa ne loolu dina soxal bisu ci kanam dinañ ci ñëw dinañ waxtaanee aussi ak beneen sportif wala footballeur sénégalais bi xam ne blessure am bi dafa doy waar ba ñëpp yaakaar ne <coughs> bi waa FC Barcelone muy Moussa Wagué génne daal di fësal na ni dalal xel yi que ni day des dina ñëwaat incha allah dina footballaat. voilà donc ce sera pour tout à l'heure euh, ak euh, Mamadou Ndiaye donc en gros c'est ce qui vous attend tey ci euh, yeewu leen bi on sera très convivial ngeen mën a bégee ak ñun ba 11 bu leen fàtte démb ci guddi la ñu tàmbali Teranga Sénégal maye nañu 200000 maye ay mille maye ay 300000 léegi nii tamit dañuy maye salon bi ngeen di gis ak enveloppe yi tegee ci table bi plus ay téléphone portable Samsung Fold bi dañ koy maye dañuy maye tamit iPhone 12. 12 pro max bi euh, téléviseur boobu ngeen di seen dañ koy maye réfrigérateur boobu ngeen di seen dañ koy maye euh, parure or boobu ngeen di seen parure bi yegg seegul euh, mu ngi yegg si ak Mister wala mademoiselle cadeau dañ koy maye tableau bi nga xamee ni moom ngeen di tànnee benn région comme ni ñu koy defee chaque année comme ni ñu ko tàmbalee démb on va retrouver écran bi dans quelques minutes jeu bi dafa digital xam ngeen loolu région bu ngeen tànn ñu indil leen région boobu leen ko la ngeen fa fekk yéen yéen ko moom amul benn région boo xamante ni ñàkk na dara lii mooy defe naa ñàkkul dara carte Sénégal bii di Teranga Sénégal donc je donne encore euh, numéro de téléphone yi euh, mu ngi affiché wu c'est vrai ci suufu écran bi euh, mais quand même ñu fàttaliwaat leen Petit Ndoye sa caméra lëndëm na tourné nga bàyyi Médoune moom nga xamante ni talul dara ak impro moom bu ko wax bul waxati ak moom yow jël sa caméra nga taalaat ko nga nga nga nga seere ma te yokk sa jaf voilà très baax na waa ji jox jox ma ko borom sondeel bi nii la def ba ma tiiñal biisu njaay ci sondeel bu mu ko yóbbante woon yow nag waa ji gi mu la jox jox ma ko voilà ngeen baalal ma apulaay yi da nga am sama yóbbante anamu xam nga nii ngay def di dof doflu ba waa ji woo ma naan jot nga yóbbante bi yéen daal man jaaxal ngeen yéen ñaa ngeen sama yóbbante de ñame ngeen nag dugg ci man voilà donc j'étais en train d'expliquer que numéro téléphone yi am ngeen ko déjà ci suufu écran bi et certainement enregistré ngeen ko euh, seen ay téléphone portable bu ngeen ko enregistré da bind euh, par exemple numéro bi enregistré bind Teranga Sénégal comme ça quand vous appelez à tout moment ak fu mu leen mënti fekk euh, mën nañu leen rappeler jël leen en direct comme a direct donc ñooñu

86 yéen la ñuy xaar ku njëkk a woote léegi nii nga bokk ci teraanga Sénégal ñu jox la loo xamante ni euh, dafay euh, neexal sa décembre yëpp regardez en même temps avec mois euh, ci écran bi lii yëpp lu ñu leen di may la tout ça. lii yëpp dañ koy maye voilà euh, ay téléphone portable fold bi jar na 14 milliards 12 euh, pro max bi jar na jar na 14 milliards euh, pariru or bi jar na 14 milliards 1 million yoo xamante ni dañ leen koy wéev xam ngeen ni wéev nag maa ngi wax ci moom biig yónnee wala jotte doo fay dara man coro ma ko njëkk taal moo ñëw na ko xam doo weef ndax doo ma ne ko ay coro yow coro yow yow yow rattax la nga de mu daa ma daa nga waskee yow daa yow këy daal weef de moo xew yeggi ma ne ko weef jàmm man de damaa weef suma karaw gi mu ne ma transfert d'argent la da nga yónnee di recevoir te doo fay dara ma ne ko waxoo benn dëgg je te jure barki borom tubaab moo ma taal weef mu ngi nii toog tungu ne du ceew ñu na taal yow yaa ma taal weef wala taaloo ma weef ah baax na yéen da ngeen su ma waxee ay waxi daf laay wax je te jure on était au resto non ensemble en train de déjeuner parce que dama leen di tiiñal xam naa leen bon ah, yow tam gay lu tax tey waxoo lundi ba la passé damaa ñëw waxuma ngeen taaj ba teesat def fële naa ma bu topp nit ñi tey ma commencé wax yow tam nga ñëw sedd ah. damay seddaat de. bu seddaat bu seddaat. ah bul sedd ni ñu koy waxee euh, Diallo Jerry. wax ko la neexee noo ko santire. Diallo Jerry bul sedd. voilà ok thank you so much. damay xaar nga daaneel comme ça ma yëkkati. man xanaa xamoo kii laa gën a bëgg ci tele bi mooy sama xarit. sama xarit la de. yeah. non man sama kilifa nga. yeah. dénkaane laa si. I am your big brother. <laughs> eh est-ce que xam ngeen ni jeudi. jeudi. Pape Pape de li ngay wax. moo na xam. kii tey moom laa yeewul na xëm na xëm tey man moom moomu indi ci télé bi tey moom rek laa ñëwal tey yeah donc 88 628 20 20 wala 88 628 04 05 am na ku doon nettali benn affaire de kan man maa doon wax yéen dee leen may baalal man lii may def nii tayu ko <laughs> non dama doon woo jeudi hmm. Awa Gaye moo doon tax may wax dama doon woo jeudi ci guddi hmm. dinaa def émission spéciale boo xamante ni Gàmbi rek laa koy jagleel oh, voilà jagleel ko kilifa Gàmbi yëpp Adama Baro Diawara Roqi Malick meeru Gàmbi euh, meeru Banjul astafurla euh, ñoom rek ñoom rek laa koy jagleel thème bi thème bi jeudi wëndeelu thème euh, jeudi 21h. incha allah incha allah Gambie rek la. voilà Gambie rek. that will be a very big pleasure. Euh, ndax euh, Gambie bokk nañ si téléspectateurs yu gën a seetaan TFM waaye mm-hmm. to be specific. Gambie de love wëndeelu. Mm-hmm. because Gambie dañu bëgg affaire yi culture affaire yi history ah. histoire. and then um, Gambie dañu am si histoire yi Sénégal ak mm-hmm. Gambie. because um, ñun soo nekkee Gambie da ngay jàng tuuti histoire Sénégal. Sénégal comme government. Uh, interrelationship bi ak bilateral relationship bi nga xam ne dafa am diggante Gambia ak Sénégal that would be interesting <laughs> est-ce que xam nga émission boobu moo nar a dàq si nga jot a defal gu of <laughs> <laughs> léegi ma woon leen euh, euh, tableau Teranga Sénégal bu ngeen tànnee euh, région ma expliqué waat leen ko Mado ton visage voilà top quoi macha allah bëgguma la cat mais sa kanam gi ni muy feeñee nii ci suuf écran bi. ku ci loolu boo ko yàqee ah bu la bi woowee naan la daa am ay bullet dafa. man man suuf kanam day dugal damay nëbb. yàqu dara nëbbal nëbbal eh kanam gi nii dafa baax. petit bul yàq dara bul yàq dara lii dafa baaxaale. Oh. Hmm. yaa ngi baax nii. fu puusal ko écrit tel bi li ngeen bind ci suuf nii nit ñi bëgguñu koo gis. jàpp nañu numéro téléphone yi ba pare. <laughs> kanam ay ni sa kanam del del sourire daal yow tey defal ko hôtesse yi. xoolal su may wax ngay ree su may wax ngay ree dégg merci Afoulaye <laughs> sénégalais yi bind nañu numéro téléphone yi ba pare 88 628 20 20 bu ngeen ci wootee léegi nii euh, région bu ngeen tànn par exemple téléspectateur woote tànn région de Dakar regardez. bu tànnee région de Dakar exemple la répétition elle est pédagogique hein on ramène toutes les régions après Dakar ñëw ma pose Dakar donc su ma leen posé les Dakar après jël sama temps riitambale leen tëmbëje leen wax wax ma saaf donc su ma waxee lu ma saf ba pare après ma doog a bës Dakar ñu décompté ndoo ensemble bu ñu décompté ba mu euh, ba ba Dakar ibbeeku li ngeen fekk ci biir dakaar loolu yéen yéen ko moom muy seen cadeau Teranga Sénégal regardez par exemple nii lay demee su ma nee Mado tànnal nañ la dakaar ubbil nañ la dakaar plutôt décompté 4 3 2 1 0 et on découvre votre cadeau c'est simple c'est simple voilà lu ko gën a simple amul tu ton téléphone nga composé benn ci numéro téléphone yi tu choisis ta région et on ouvre après tu a ton cadeau cadeau bi nag tuutiwul cent mille la tàmbalee jëm un million te immédiatement fi nga toog dañ la koy wéev quoi démb par exemple ñi ñuy wéeval ñëpp dañoo kontaan. Ah. imagine nga toog rek ñu wéev la trois cent mille. li gën mooy ngeen télécharger application bi wala wut carte bi mais même bu ngeen ko amul Wave day def transfert par code. ñu def ko transfert par par code nga dem ci Wave bi la gën a jege récupérer sa mille wala sa mille n'est-ce pas 2020 bi dafa naqari woon à un point boo xamante ni dañoo bëgg bu ñu koy jeexal ñëpp kontaan ñu duggandoo ak mbégte 2021 parce que paraît-il ni nga commencé at bi noonu nga koy jeexalee donc on on a envie que euh, ñëpp euh, jeexalee 2020 euh, ak bànneex mm. mën a tàmbali 2021 ak euh, ak bànneex quoi voilà donc euh, ñu ngi leen di xaar euh, ma delloowaat carte bi yëpp magie noire <laughs> na sax xaw ma li may def nii lan la barki Serigne Touba xaw ma li may def xaw ma lan la de damay def nii rek. <laughs> dama fiin ne tey ñun dañ toog class and he's our teacher. yaa ñuy yaa ñuy jàngati suñu prof. <laughs> because you know. waaye soo nekkoon teacher ban teacher ngay bëgg doon lan ngay jàngale. Ecofam. <laughs> Eh! non histoire. non ah, foofu griot laa bëgg man xanaa xamoo télé bi c'est les griots qui narrent l'histoire nan la ñuy ñuy filmer ñuy ngay gis plusieurs fois du double rôle la ah. man télé bi double rôle laa fi joué yow kañ triple rôle saa <laughs> yi rôle mënoo ko compter tubaab fakal la triple rôle sax parce que ci biir baay am na sang am na pool am na njarka am na njarka njarka ak bu série déclic bi ah. wallaay déclic boobu eh, moom saadakan laa indi moom <laughs> déclic moom saadakan pire ba nga ba nga dalalee ki nekk OIM tam boobu ban la woon. OIM. waaw yeewu leen yeewu leen. Eh, c'est mon ah, côté c'est mon côté français. ah, ah oui Jean-Pierre Foucault. Oh, <laughs> eh, c'est mon côté français ah. ça ça c'est PCD Pape Cheikh PCD. PCD waaw c'est PCD. yéen nga ni maa ngi waaj a ubbi télé. déedéet. Eh, <laughs> télé bu baax bu rëy boo xam ni de. improd jiitu na la barke maa ngi waaj a ubbi télé. barke Serigne maa ngi ci yoon bi. Mm. maa ngi waaj a ibbi de. ay su ma ibbee télé <laughs> émission yëpp maa ko nar def. animateur bi commercial bi. da ngaa embauché. xale bu déconné rek ma dàq la remplacé la. <laughs> <laughs> allez téléspectateur bi njëkk a dugg 88 628 20 20 on va retrouver Sophie le temps Sophie di nuyoo euh, ngeen composé dugg si ak fu ngeen mënti nekk seen bureau euh, seen kër partout appelé et puis ñu jox leen euh, seen ay <coughs> séddale taamu naa ci kudd yu njëkk yi moo tax Teranga Sénégal ci ndortel bi nii je vous conseille ngeen song ko mun a am ci yu baax yi sinon bu ngeen demee ba mu xaw a yàgg tuuti affaire bi mën na gën a xat quoi te bu xatee day metti mën na am embouteillage nga xam ni ligne yëpp féex na euh, composé leen 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 voilà ainsi de suite ainsi de suite numéro téléphone yi bëriwul mën ngeen woote ku dugg rek euh, ñu jox ko yëfam euh, ci Teranga Sénégal Sophie bonjour naka suba si. bonjour Baye Cheikh. solo ci na <laughs> équipement ki ni ma soofee léegi mën na wonewu Sophie équipement am la yore <laughs> di sol lu ko neex Sophie dégguñu de. di wala mu ngi dégg dama koy dégg. Sophie. Bachir sama waa ji naa la. sama xol nga ne. déedéet kay. je te jure. équipement bi. damaa yëg succès baay. taa yëg nga sa succès nag. damaa parce que yow amuloo concurrent. defe naa télé yi amuñu émission togg de. pour pourtant am na sax de. Ah! am na de Baye. yaa leen gën a saf loxo. waaw jërëjëf Baye loolu dafa leer. <laughs> Hmm, ñoom dañoo lewet dañoo lewet. maa la wax loolu amuñu xoxom amuñu xoxom. manque de sel la. Ah. moo yow ñoom bàyyi ma leen traitement de malade la ñuy togg ti télé yi. mi ngi noonu Baye doo seen moroom. déedéet saa yoo toggee gën. loolu dafa leer. <laughs> sama xarit bi. macha allah Diallo. looy togg tey. Eh, tey nag Baye Cheikh comme te mouvement de euh, mouvance de fête la ñu nekk rek dañuy def. Euh, euh, sapin de Noël à la mortadelle euh, boo ko déggee nag bàyyi ñu bari dañuy foog ne sapin de Noël pour teg sa kër rek décorer alors que mën nga def benn plat boo xamante ne nii dafay jël forme sapin nga daal di koy defar nag ba mu baax def ko au four euh, sapin de Noël bi nag pour ñu defar ko bàyyi dañuy soxla euh, pâte feuilletée am na ñu aussi tomate cerise am na ñu fromage am nañu carotte piment de Cayenne am nañu mortadelle bi nga xamante ni mooy base du plat bi am nañu suñuy épices naturelles am nañu laitue aussi de l'autre côté boo gisee fromage bi nag bàyyi nga xam ni dañu ànd ak euh, waa Dieye Global Food ñu àndil ñu ay produits yu macha allah lépp lu jub lu jëm ci alimentaire waa Dieye Global Food ñoo ñu ko àndil ñoom nag ñu ñu àndil nag euh, frites am nañu fromage marque Tima am nañu oignon jaune euh, pomme de terre jaune am nañu foie am nañu viande am nañu aussi li nga xam ne mooy ay lépp loo soxla rek bàyyi soo leen woowee dañ la koy livrer ci sa kër mu nekk ay produits yoo xam ne yu frais lay doon yu macha allah euh, ci kanam nag bàyyi ñu dellu si waat rek fii euh, daal di defar li nga xam ne mooy suñu plat du jour tey de l'autre côté aussi am nañu détox boo xam dañu jël citron ak orange ak tuuti jingeer daal di koy def de côté aussi ñu am bisaab au citronnelle bisaab bi nag citronnelle la ñu ko defee ak quelques feuilles de menthe mu naturel nga xamante ne nii boo koy euh, mën nañ ko utiliser pendant la euh, pendant les fêtes euh, Baye Cheikh day naturel oyof loo lekk naan ci doo am dara lu la ci naqari Baye Cheikh ci kanam tuuti rek ñu dellu siwaat ñu won leen naka la ñuy defee suñu sapin de Noël au mortadelle. voilà pendant que nga ñuy won ca kanam tuuti naka la ñuy defaree sa de sapin de Noël on dit au mortadelle ou à la mortadelle. à la mortadelle à bàyyi leen faute yaa ngi def ay faute rek. <laughs> yow lu tax ngay def ay faute rek yow ci télé bi yow Sophie on di à la mortadella à la mortadella grazie mille <laughs> <laughs> à tout à l'heure à tout à l'heure Sophie et ñun matin bi euh, kaca la ñuy laal de Katia rek je te jure ni Katia la ñuy laal euh, chez Katia c'est sur la route des Almadies euh, ndekki yu neex pas cher euh, mën ngeen ko fa am par exemple avec 5000 mën nga jàdd Katia tu as un menu complet un bon petit déjeuner y a y a d'autres menus yoo xamante ni Katia daf leen koy proposer fii Sénégal tàmm nañu depuis trop longtemps ku ci bëgg pizza bu neex jàdd chez Katia mais seen vienne viennoiserie jar na 14 milliards allez donc chez Katia donc Katia nous accompagne tous les matins ci bi dans quelques minutes on parle euh, de sujet bi nga xam ni moom la may mën euh, a préparer ñu muy taux de croissance euh, en cette période de pandémie mais en attendant j'aimerais euh, ñu jël téléspectateurs yu njëkk yi quand même bu ko defee ñu mën leen jox ci yi ñuy séddale ci teranga Sénégal je prends tout de suite benn téléspectateur allô. allô oui. bonjour. Comment allez-vous? Comment vous vous appelez? Awa Samba. Awa Samba. Oui. Awa, tu nous appelles. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez de HLM. oui oui. lu ngeen làkk français làkk français il faut ngeen ñambaasi yëfu wolof on dit HLM. vous nous appelez de quel HLM. on dit pas HLM on dit HLM. <laughs> ça nan nga tudd Awa Samb. Awa Samb waaw. Awa ça va ñu ban ban ban nga nekk nga ni HLM Grand Médine. Yoff. ah HLM Grand Yoff. c'est pas trop loin de chez moi moi j'habite Liberté 6 ah, ah, je suis à Liberté 6 mhm. je vous tegtal chez moi. waaw waaw. Euh, boo ñëwee. Eh, <laughs> oui ma. boo ñëw sama kër boo jëlee oto am na kalandoo kalandoo yu gaare côté Koromaak fay boo jógee kër Koromaak fay nga avancé tuuti. Ah. après di nga romb benn fuy jaay ay kii fuy jaay ay meuble ci kaw laa dëkk. yow yaa may weer voilà bii nga joxe nii. at mooy wane ni dëkk ba foofu en réalité boo ñëwee ba kii <laughs> allez Awa Samb yaa ngi dëkk HLM Grand Médine c'est ça. HLM Grand Yoff Grand Yoff mm-hmm. est-ce que pare nga pour bokk ci teraanga Sénégal. très bien lan nga bëgg ñu may la lan moo gën a nekk sa xol parure bi euh, salon bi euh, téléphone portable bi wala lan moo nekk sa xol. iPhone bi. iPhone bi. Mm-hmm. ay yow yàlla nañ la ko may. man de yéene naa la ko. amiin d' accord léegi. am nga ay ah. am nga ay joker. joker yi mooy xale yi toog ma Mamadou Ndiaye joker la Maymouna joker la Bifi <laughs> joker la. bu la ah. neexee. nga ah. nga bàyyi leen ñoom ñu tànnal la région bi nga bëgg boo leen wóoluwul. nga tànnal sa bopp sa région. comme mm. ça li nekk ci biir région bi yow lañ koy may dégg nga. d' accord de toi. ma doo tànnal ma. mat wóolu nga matoo. naa ko kay. xanaa da ngaa gis taayam foog ni li muy joxe goro loola. ah, ah Mado daf la neex rek. voilà da koy seetaan seetu bi ak yeewu leen. Facebook. waaw man je pensais que man rek maa koy seetaan. maa koy seetaan de. Facebook live dafa neex de. neex man de bi ma ci gën a neex mooy buy togg. <laughs> parce que yenn yenn saa yi day togg kay kon yow mosoo seetaan ma yenn saayu mu togg de. non <laughs> même lan am na fête bu mujjee woon am toggoon na de jour boobu këram tam xarit bi toggoon na cere en direct. waaw day waaj a ibbi Mado TV euh, Mado si <laughs> tu je t'aide je t'aide pour le micro. nga ñëw tànnal ko région. non ah, ma kiiwal la. waa jox ma sa baaraam. Ah, fan nga koy tànnal <laughs> ban nga koy tànnal. Euh, tegal ko ko Ndar Géej. Saint-Louis. Oh. alo louis euh, alors euh, Awa. madame mu ne pour ñu tànnal la Saint-Louis. waaw bi ma Saint-Louis. d'accord nga ci la li la Mado tànnal. waaw na la Mado jikk. amiin voilà Saint-Louis mooy fan. ci kaw Pape ah, ah Saint-Louis moo nekk ci kaw. allez euh, euh, Mado euh, qui a choisi Saint-Louis pour Awa mi ko wóolu jàpp ni bu ko Mado tànnalee Saint-Louis dina fekk Saint-Louis lu baax et j'appuie sur Saint-Louis. voilà. ça va ma Awa. Awa Samb. allo oui. Awa Samb yak Awa Gaye yéen a bokk turandoo. waaw loolu moom am na. Awa Maar lañ leen tuddee. koy Awa Maar. Awa Maar bu Banjul. voilà donc Awa. gis nga région de Saint-Louis. maa ngi mus mus nga dem Saint-Louis. lan nga xam Saint-Louis Tour Eiffel bi certainement ak ah, Tour Eiffel pont bi nu mu. pont Faidherbe ñoo ñoo bokk leen defar ak matière première. <laughs> c'est un lapsus révélateur ma chérie. <laughs> Tour Eiffel ak euh, pont Faidherbe ñoo bokk ku leen defar ba pare ñoo bokk matière première donc lan nga fa xam ndar euh, pont Faidherbe bi. ak lan nga fa xamaat. Ah, Ah, yow mbaa du da ngay dem da nga mës a dem hydrobase. 14 août. ok hydrobase ak lan pont Faidherbe hydrobase ak. Sanar. université ak lan loolu rek nga xam daal. allo. ak lan ak lan ak lan. Eh, stade Faidherbe. stade ah statut fait waaw wax nga dëgg bi ñu bëggoon déboulonné c'est ça le mot déboulonné d'accord voilà je vais pas te retenir trop euh, léegi ma ubbil la Saint-Louis. waaw ubbil ma. ma ubbi. waaw allez. cap ma ubbi Saint-Louis pour Awa 5 4 3 2 1 one voici ton cadeau 100 000 merci beaucoup. et 100 000 baax na de aw ma wéef la ko léegi ah. ah waaw wéef na ko. allez téyel sa téléphone téyel sa téléphone léegi nii ma wéef la ko. waa ñan ñooy tàcc noonu. xanaa cee bëgg bu leen ci may. dañ cee bëgg dañ cee bëgg dañ ci bëgg bu leen ci may dégg nga dañ cee bëgg ah. d'accord attends xaaral ñu wéef la ko attends ne quitte pas ne quitte pas ko. waaw ne quitte pas ma wéef la ko. ne quitte pas de dama la koy wéef léegi nii comme ça 100000 yi nga jot ko grâce à Mado mbaa di nga ci cër Mado. merci Mado. <laughs> mais Mado 25000 yi ah. si xaalis bi koy jot wéevaat ko ko Mado. non Pape Cheikh man ah, d'accord uh-huh. naa ko wéef moom ko benn euh, soin ci euh, salon Glam Style. waaw mu rek. xam nga salon xam nga salon mode bi fan la nekk. maa ngi dégg mu naan xaw ma côté boo ñëwee ba foofu. ata boo ñëwee ba foofu noonu. maa ngi xam nga jàdd <laughs> côté immeuble boobu boo fa jàddee ma rey <laughs> na ne ci kaw tali bi rek. <laughs> voilà donc envoyé nañ la cent mille euh, plus bon boo xamante ni Mado moo la ko may awa ñu ngi lay gërëm bu baax merci d'avoir rappelé. Euh, euh, elle sera pas là elle sera pas là malheureusement. et pourtant ñu ngi ko doon xaar moom Amina Poté mais Amina Poté Amina Poté tay dafa mel ni ku nopp Poté impression boobu la am de tay dama mel ni ku nopp Poté xaaral ma bind ko message nii sax peut-être tu sais que je t'aime donc aujourd'hui bu fekkee ñëwuloo après man. je vais passer kon yow loolu tax nga tas diggante bi. <laughs> Ah, ah kon loolu ah, taxoon nga sax ah. diggante bi yow. stratégie la xam naa ngi doon ko comprendre. sa diggante côté. Um, ndaxte keroog nag ma piégé yow yaa ma yóbbu ba foofu. yaa ma yóbbu ba foofu. fiston. yaa ma yóbbu ba foofu. fiston. bàyyi li nga def xale bi ñaaw. fiston. ma piégé ma ne ma kaay ñu dem. fiston ba foofu ñu mu dugal ma. léegi nag quoi le fait accompli. jusqu'à présent doxu ci jàmm. chaque jour maa ngi naan ko papa est-ce que la waxu ma. fiston. mais waxu ci. fiston mon fils. <laughs> mon fils bàyyi leen bu ngeen ànd ak seen père yi. di bëgg li ñuy bëgg. oui. fiston bàyyi leen bu ngeen ànd ak seen père yi. xam nga seen père yi wàcce seen bopp sol pain tubay yu dang ngeen foog ni seen père yi seen morom lañu pote du sa morom fils. yaa mais kon ko comprendre. fils fiston fils mon fils. mon fils mon fils si tu veux vivre longtemps moytu ñamu mati yi. yàlla baax soo bëggee dund lu yàgg moytul ñamu mag yi allez ban téléspectateur mooy duggaat léegi nii euh, comme awa mi woote léegi euh, ñu may ko 100000 ku duggaat di nga am 300000 par exemple euh, ci 88 628 20 20 on va en profiter quand même pour waxtaane sujet yu ñu leen indil tey ci suba bokk na ci li may mun a indi ñu tuddee ko taux de croissance. effectivement Baye Cheikh taux de croissance bi nga xamante ni nag ñëpp yaakaaroon nañ ni en période de comme pandémie dina dem li nga xamante ni moo di récession maanaam taux bu négatif. mais heureusement pour le Sénégal on a pu maintenir un taux positif am na benn expert bu ñu demoon seeti monsieur Diaw mu euh, wax ñu déjà lan moo euh, waral ba ñun finalement on a eu un taux positif ak nan lañ ko mën a apprécier ci période bi nga xamante ni moom lañ nekk nii dañ ko déglu dellu soit ci plateau bi. wàllu chiffre yi nga xamante ni fan yi joxe nañ ko mu créer benn débat ci réew mi euh, ministre bi nga xamante ni moom lañ dénk wàllu koom bi wax na si si bi muy jaaree assemblée nationale di défendre budget maanaam chiffres yooyu mooy entre ñi nga xamante ñu ko moom étranger lañ te ñu euh, si mel ay euh, européenne zone européenne bi donc euh, maanaam moom chiffres yi mu joxe dafa porté si wàllu contribution si entreprise yooyu noonu si wàllu PIB produit intérieur brut Sénégal si wàllu création d'emploi si wàllu taux de croissance et je pense que tey ministère de bi nga xamante ni dafa war dafa yor wàllu koom am na information yi nga xamante ni tey gisuma mu si benn intérêt boo xamante ni day wax li nga xamante ni méngoowul ak li am dëgg ak li nga xam mooy yoon parce que jàppal ne ministère de léconomie moo yor lu ñu tuddee ANSD agent national de la statistique de la démographie mais aussi ministère boobu tey moom moo yor lu ñu tuddee DGPE maanaam direction DPE pour faire simple direction prévision étude économique donc tey ministre bi am na tey ay entité yoo xamante ni si wàllu statistique si wàllu données a si sukkandiku pour joxe ay chiffres yi nga xamante ni tey moom li nga xam mooy wàllu koom économie maintenant nag mun nañ weddi ñeneen ñi nga xamante ni aussi ñoom ñooy euh, waxal joxe yeneen chiffres mais dama bëgg maanaam chiffres yooyu ñuy joxe mu lalu. mu lalu si ay euh, statistiques yoo xamante ni yu fiable la statistiques yoo xamante ni yu leer la yu méngoo la bañ a dox si ay wàllu prévision dox si bañ a dox si ay wàllu euh, euh, estimation milliards yooyu ñuy wax si wàllu PIB bi reflété wu na réalité économique réew mi loolu mooy débat bi ak fekkee ni aussi entreprise yi nga xamante ni ñoom ñooy créer seen valeur ajoutée seen chiffre d'affaires est-ce que day dekk si réew mi je ne pense pas parce que ñoom tey am na benn relation boo xamante ni lié na leen coopération monétaire de telle sorte que bu ñu créer maanaam seen valeur ajoutée ils sont am nañ benn liberté euh, yóbbuwaat ko seen réew sans pour autant mu am benn euh, li nga xamante da leen si fekk si wàllu frais ou bien si wàllu coût Sénégal bi nga xamante ni tey taux de croissance ñi ngi ko doon xaar si 6,8 pour cent 2020 tey ñi ngi xaar mu dem ba 0,7 pour cent téeméer boo jël nga jël si 0,7 0,7 pour cent bi nga xamante ni moom lay réew mi war a xaar si wàllu koom. un pour cent yi nag boo xoolee euh, bokkoon na un virgule pour cent yoo xamante ni defoon nañ estimation yu njëkk mais tey dañ ko gën a wàññi ba zéro virgule sept cent nañ jàpp ne aussi donc nekkagun ba en dessous de zéro maanaam ñu ngi toujours si intervalle euh, donc avant euh, toujours en dessous de en pour cent et je prends je pense que tey taux de croissance c'est vrai wàññeeku na mais àggugoon fi nga xamante ni peut-être moom ñu bëri moom la ñu ragal ou bien moom ñu bëri moom la ñu coow maanaam tey lu si mel ni wàllu récession beneen défi bi mooy deux virgule deux mille vingt et un bi nga xamante ni état bi fixé wu na ko pour mën a réaliser taux de croissance de cinq virgule deux pour cent am na espoir def loolu mais dafa laaj ay mesures yi nga xamante ni dañ ko war a mettre en place tey. et ku jàpp ne deuxième vague bi ñëw na donc xel war na mën a tey si li nga xamante ni mooy peut-être objectif bi état bi mën a pour réaliser donc cinq virgule deux pour cent yi mais nan jàpp ne tey ba fii ñuy toll ba fii ñuy wax tey taux de croissance Sénégal mu ngi si lu gën a néew un pour cent. wàllu chiffre yi nga xam ne. waaw donc euh, xam-xamam màcc na ci wàllu koom bu ngeen dee lire euh, yéenekaay bii di Le Soleil. Euh, hmm. moo ci def ay articles yu ñu jagleel wàllu koom remercier bu baax a baax donc bu ñun bu ñu dellu suwaatee ci li mu wax rek moom ñëw na euh, effectivement si euh, lan moo xamante ni moom mooy euh, taux de croissance taux de croissance nag boo koy xool moom mooy boo xoolee production bi dëkk bi di def d'une année à une autre wala pendant une période déterminée donc loolu nag dafay jël li nga xamante ni moom mooy production de biens et services yi TVA yi déclaration taxe ak subvention yi nga xamante ni dëkk bi da koy r donc boo xoolee loolu yëpp bi am bi année N bi nga nekk moom la ñuy comparer ak année bi nga jógee mhm. donc ce qui est fortement prévisible mooy ne ko si 2021 se porte bien dañuy amaat taux bu gën a mag parce que on part de zéro à un taux X. Ah. donc taux de croissance nag mën nga ko mesurer par PIB bi mooy produit international brut bi intérieur brut bi wala li nga xamante ni mooy PNB PNB mooy produit national brut maanaam ñi nga xamante ni entreprise ak bien ak euh, personnes yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi valeur ajoutée bi nga xamante ni ñoom tamit am nañ ko ak production yi nga xam ne am nañ ko sur une période déterminée donc Sénégal ñu ngi doon prévoir cette année par rapport ak évolution bi mu doon am ñu am un taux de 6,8 pour cent. mais contexte pandémie nag ça a été défavorable parce que yu bëri ñëwul subvention yi production yi entreprise yu bëri nekk en léthargie ba nga xamante ni mënuñu def euh, production bu baax. mais man mm. man dagguma la mais je pensais que ça allait être beaucoup plus négatif euh, buñ dee xool année bi nga xamante ne moom la ñu traversé parce qu'à un moment donné plus mm. personne ne voyageait. Mm. ci dëkk yi. Euh, économie bi dafa àdduna donc man je m'attendais quelque chose de négatif naka la ñu def ba am toujours euh, taux boo xamante ne. taux bu baax quoi fii Sénégal seen suñu taux dafa baax baaxal la maa ngi bind ay messages rek la bu baax. <laughs> am nañu taux de croissance bu baax malgré crise bi. bu baax malgré enfin on est resté positif. donc euh, économie yu bëri dañu dem en récession c'est-à-dire ils ont eu un taux négatif donc nous on a parmi les quatre pays de l'Afrique yoo xamante ne ñoo am euh, taux bu positif. Ah. te taux bu positif boobu ñoom li ñu ko expliqué déjà moom nee na investissement extérieur brut yi maanaam entreprise. entreprises euh, parce que faut pas oublier aussi que bi ñu nekkee ci crise bi ñun tëjuñu woon suñu frontière pour tout ce qui est exportation de biens et services nit yi ah. mënuñu woon dem mais lekk baa ngi doon dugg marchandise yaa ngi doon dugg ñu ngi doon dem et donc peut-être loolu nekk na ci ay mesures yoo xamante ni ba pare xam nga tey bu ñu tëjee tamit nekk ci contexte boo xamante Sénégal gis nga politique étatique yu bëri dañ ko reposer maintenant sur l' agriculture pour que mu mën a porter économie nationale bi gis nañu defoon nañ en période pandémie si li nga xamante ni moom mooy culture maraîchère yi ak production maraîchère yi wane ni que Sénégal de plus en plus seen euh, secteur boobu mu ngi dox mbay bi aussi euh, gerte bi gis nañ ni que cette année aussi on a eu une très bonne production donc nekk na daal ay affaires yoo xamante ni sur le plan euh, national ñoom ñoo gën a porter économie bi maanaam agriculture bi nga xamante ni moom moo porter l' essentiel de notre plus du secteur informel donc ñoom daal ñoo maintenir pays bi maintenant après on n'a pas un taux exceptionnel parce qu'on est à un taux de moins de 1 pour cent c'est-à-dire exactement parce que bi crise bi doon doog a commencé par rapport ak mesures yi nga xamante état bi jëloon nañ ko on était sur une prévision de de taux de croissance ñu dem ba ci biir ñu gis ne que affaire yi ba tey doxul ñu estimé ko à 1,1 mais finalement en fin d'année on s'est retrouvé avec un taux de 0,7 pour cent mais taux bu faible la mais c'est un taux positif parce que am na fu ñu joge dem ci kaw wàcc delluwuñu ginnaaw Pape Cheikh. voilà donc ça s'appelle taux de croissance. bien expliqué quand même. voilà merci Maymouna. merci am na solo. <laughs> merci euh, di ngeen amaat replay bi ci YouTube euh, slash TFM merci euh, muy sujet bu am solo. Euh, dinañu ñëw euh, ci beneen sujet muy euh, coowal suppression ville yi il paraît que dañu koy waaj dindi Coro Mbaar Ndiaye itam tase na comme may mun a ak beneen borom xam-xam boo xamee ni indi na ci ay explications je pense qu'on peut en parler tout de suite. pendant que ñu ciy wax mën ngeen continuer di woote ci numéro téléphone yu ku dugg maye nañu léegi nii 100000 beneen 300000 itam mu ngi ci benn région yu ku dugg mën nga koo am 88 628 20 20 wala 88 628 04 05 88 628. 65 65 xaalis bañ leen di may dañ leen koy wéev léegi nii wéev nag euh, ku ne xam na ni sa xaalis yaa ko moom kon bu la neexee nga wéev ko lii ngeen di gis euh, salon bi dañ koy maye euh, <laughs> téléphone portable yi dañu koy maye lépp lu nekk ci table bi ba ci pariru or bi dañu koy maye téléspectateur bu dugg léegi ñu may ko en attendant ngeen di woote di dugg bañ leen di jël pour may leen pour wéev leen xaalis ci teranga Sénégal coro fan yëpp ñu ngi wax nii Euh, dañuy waaj a euh, euh, supprimer Euh, ville yi comme Dakar euh, nga tase ak borom xam-xam boo xamee ni ab juriste la. Euh, effectivement El Hadj ville yu mel ni Dakar Pikine Guédiawaye Thiès wala Rufisque bu ñu moywul dañu leen di supprimer ñu wax ni nag sànq yaa ngi doon wax bu ñu supprimer ville yi lan mooy xew lii xew mooy Dakar day continuer di exister mais maire yi moo dul amati maire la ñuy dindi donc bu loolu amee président conseil départemental mooy daal di am ci fi nga xamante ne moom moo di Dakar xamante ni moo di suppression bi parce que am na ci euh, euh, code bu Sénégal foo xamante ne wax nañ fa lépp lu jëm ci wàllu département yi mais dina am pàcc yoo xamante ne mentionné wuñ fa ville donc loolu tax sax ba ñenn ñi jàpp ne yëf yi soubassement politique moo euh, moo tax ñu bëgg a dem ci li nga xamante ne moom moo di suppression boobule dinañ ko wax ci kanam tuuti waaye leneen li bokk na ci élection locale yi nga xamante ne reporté nañ ko une fois loolu lépp tamit di poser débat ci légitimité wu ñoom ñoo jiite gox yi ak gox-goxaat yi fii ci Sénégal mën nañu dem euh, say euh, déglu li ñu waxtaan ak Mamadou Gueye moom non seulement il est euh, juriste waaye également nit la koo xamante ne dafay yëngu ci wàllu politique mën nañ xool élément bi ak Abdoulaye ay spéculation ngi ciy ñu ngi ciy jib bon ko wax tamit nekkul ku ndaw c'est un ministre bi nga xam ne moo jël responsabilité mi wax ko ne dañoo war a supprimer ville bu mel ni Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque ak Thiès am na peut-être peut-être am na politique bu ko lal peut-être kenn xamul daal li ne ci biir en même temps mais bon lu ñu jàpp rek xaar ba am ci lu leer mais man jàpp ma ne tradition politique war na mën a tax ñu ñu supprimer loolu noonu gisuma ban impact la war a mën am ci développement réew mi wala ci localité yi gisuma ko ci. article premier bu code euh, territorial dafa leer daf ne les codes territoriales sont le département et la commune foofu y a de notion de ville sur Euh, les villes man daal li ma jàpp mooy dëkk bu nekk war na ko bàyyi mu autonome euh, ñi ñu war a jiital ñoom ñu bàyyi ñu jiit ñu tànnal ko seen bopp mais du kenn mën a koy tànnal. jàpp naa ne daar daara war nañu organiser élection yi ku ci nekk xam par nga féete ndax gox yi sonn nañu am nay maire yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, seen tas nañu yaakaar population wala kon dafay baax ñu bàyyi ku ci nekk mu mu am compétitivité compétitivité par rapport ak sa gox. maire yi mënatuñ voilà normalement délégation spéciale moo doon ab kenn nekkatul maire mais bon à l'impossible nul n'est tenu gars yi ngi dund parce que c'est une pratique pratique boo xam ne yaa gën a am Sénégal Sénégal dañuy jël loo xam ne nii depuis 1960 mooy am. ñii di ko répété ñaan yàgg na fi am fekk ne loolu noonu méngoowul ak ak ak dem du ñu ci gis pas ay te les jeune jàpp naa ne représentent soixante-dix pour cent de notre population ñooñu war nañ xool nan nañ leen mën a dimbalee ci liggéey nan nañ leen mën a dimbalee ci ci ci ci formation li ngay dégg ci lu bon ñuy teg ci nit yi wala feebar yi yi am ñu jàpp ne jeunes yi ñoo ko indi yëpp parce que dañoo am temps toog ci mbedd ki nga xam ne tey formé woo ko ki nga xam ne tey jàppale woo ko mu dem am emploi bu baax kooku noonu mënoo ko ne doo agressé mënoo ko ne doo sàcc en nga fan yii passé gis nañ euh, jeunes yoo fi ñu def benn grève ci ko boor géej gi te ku xam lébu xam ne ku fier la boo demee ba ñoom la ñu moom muy ndox gi muy géej gi muy mbirum pêche nga dem ba xaj leen ko kon jàpp na nga tu as fait ta mission donc suñu municipalité bon suñu mairie amul benn apport bu mu am ci euh, ci ci population sentir ñu leen nekk ñu ñoo xam ne jege nañ seen population boo demee ba fa kayit di nga fa toog 4 heures de temps 5 heures temps dañu ko defal yeneen scandale yu am par rapport au foncier euh, hangar de des li fa jot am te Yoff nu mu mel bii jour bi nga xam ne si naali Maamu Laay fa la tëdd foofu noonu dafa waroon bokk ci dëkk yi gën a sell yi gën a mag ci àdduna bon su fekkee nag 2014 a des budgets de milliards am nga mécanisme bu la waroon permettre nga développé agriculture may na la nga dem uti ay partenaire te mënuñu gis ni benn brique teg nga ko fa kon jàpp nañ ko tu as failli donc ñu doon waxtaan ak ki nga xamee ni mooy Mamadou Gueye juriste la mu am explication yu mu indi euh, ci supprimer bi ñu bëgg a supprimer ville yi. effectivement El Hadj euh, juriste la Mamadou Gueye moo jiite également mouvement pour la refondation des valeurs euh, ñëw na un ci li nga xamante ne moom moo di suppression ville yi parce que xam nañ ni tey bu ñu ko tegee ci loi loi bi jëlul carrément en compte li nga xamante ne moom moo di ville yi par exemple tout ce qui est commune ak li nga xamante ne moom moo di wàllu département yi mën nañ ko fekk mais bu ñu ko tegee ci wàllu ville xëj na tey dara du tere tegee ci wàllu yoon tey xëy na dara du euh, euh, tere ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa yi euh, ñu dindi li nga xamante ne moom moo di ville yi bu ci mel ni Dakar également gis nañu ay économistes yoo xamante ne ñu ngi wax ci wàllu suppression bi jëm ci par exemple dëkk bu mel ni Dakar tey bu ñu ko dindee dina am ay ay ay ay retombées ci wàllu économique yoo xamante ni moom lay andi leneen loo xamante ni itamit moom mooy plus grand problème bi jamono bi élage mooy lu jëm ci wàllu respect calendrier bi parce que xam nañ ni tey ci jamono boo xamante ne les gens s'attendaient xëj na à ce que ñu wax kañ la ñu jëm ci élection locale euh, tey malheureusement ñu ngi xool ana naka la ñuy def ba xëj na indi yenn ci ay ci ay débat avant ñuy dem ci li nga xamante ne moom moo di élection locale gis nañ ni am na sax ay ay ay mouvement yoo xamante ne ñu ngi commencé di juddu euh, pour rek xeex li nga xamante ne moom moo di suppression bi ñu war a supprimer euh, ville yi mu doon loo xamante ni quand luy créer waat beneen débat la ak beneen yeneen ci ay polémique wax naa ko sànq maire bu euh, ville bu Dakar maire bi moom moo dul existé ti donc président bu conseil départemental euh, la ñuy daal di am ngir mu mën a wéyal liggéey bi mais économiquement gis naa benn économiste bu wax ni gàtt gàtt bu ñu ko dindee ba quatre ans yi ci topp euh, doxin bi dina am lu ci sooxee parce que dafay am nu mu demee mais ñeneen ñi tamit ñu bëri bokk jàpp ne affaire bi du dara lu dul soubassement politique parce que xam nañ ni bu ñu xoolee par exemple mouvance présidentielle bii nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk depuis 2012 Dakar quand même euh, gox la bu leen sonal euh, parce que élection bu ñu euh, bu ñu dem mën nañu remporter xëj na gox yu bëri ci Sénégal mais dakaar daf leen di të loolu benn la la deuxième chose mooy xam nañ ni élection locale nattukaay la pour dem ci li nga xamante ne moom moo di élection présidentielle donc aujourd'hui tey quoi qu'on puisse dire guerru dakaar dafa exister parce que xam nañ ni bi ñu fi ñëwee ak problème u caisse d'avance yi ci la ñu tëjoon ki nga xamante ne moom moo di Khalifa Sall fexe nañ ba moom wala boog depuis loolu euh, yoon euh, def na ni moom fi mu toll nii tembe kenn xamul sax ay lendemain politique am euh, dinañ di nga ciy posé wu ay question yu bëree baree bari leneen li mooy beneen maire remplacé ko parce que moom dañ ko mujj dindi ndax fi nga xam ne fa la jaax ci wàll yoon mu di El Wardini ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dafay tax tout le temps guerre dafay am li nga xamante ne moom moo di Dakar gis nañ ni coow li amoon ci élection législative yi ñu mujjee jiital Amadou Ba pour mu mën a jiital moom moo di liste Dakar gagné ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc aujourd'hui yooyu yëpp boo ko nattee euh, du neex euh, xel dañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax ni mbir yi amul lu dul soubassement politique euh, malheureusement et on a l'impression que duñu xool torop li nga xam ne moom la a yàq économiquement ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne moom moo di bi comme ni ko Mamadou Gueye waxee tey priorité yi dañ koy xaar feneen parce yi li ko dàq dafa nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci gox yi ak gox goxaat yi euh, ñu ngi fay bëgg yàgg donc tey ñenn ñi dañ naan la instant bi délégation spéciale moo waroon am instant bi maire yi ils sont plus légitimes mais malheureusement euh, ñoom ñoo fi euh, nekk ba tey donc en gros tey loolu mooy li nga xamante ni moom mooy yitte bi jëm ci suppression wu ville mais mais mais laa bëgg a wax est-ce que am même si Dakar am fond <laughs> am am mainmise am mainmise ci Dakar politiquement parlant est-ce que jar na supprimer ville bi parce que. quoi qu'on puisse dire gouvernement c'est pas éternel da ngay régner boo paree jógee fi keneen régner surtout que léegi limité nañ nombre de mandats yi maintenant soo jëlee ville Dakar bi nga éliminer ko après nga dem bàyyi feeg nit ñi conséquence bi est-ce que jar na ko ba pare est-ce que amul nit ci naka la ñu mën a def pour bloquer loolu parce que tamit quoi qu'on puisse dire démocratie dafa baax si dëkk c'est pas parce que yaa ngi rek que da nga a contrôler capitale bi bu fekkente ne gañewuloo fa am na yeneen ñu ngi ci biir dëkk bi <laughs> tamit bijou parce que bu fekkee ni euh, euh, li nga xamante ne moom moo di yoon am na fu mu jaar ba xëj na protéger loolu noonu doonoon nañ mën a am foo xamante ne fa la ñu jaar peut mais xam ngeen ni tey président de la république dafa am tous les pouvoirs donc dafa am boo foo xamante ne comme ni nga ko waxee yaa un vide quelque part donc moom am na ay porox ndoll yoo xamante ne mën na fa jaar tey euh, ba supprimer ville bu mel ni dakaar wala ville bu mel ni Pikine wala yeneen ak yeneen ak yeneen la ñenn ci askan wi comme ni ma ko waxee sànq am ay mouvement yu juddu euh, ñuy wax ni li nga xamante ni moom moo di moom moo di ville yooyu la ñoom dañu taxaw temb ci bañ na ci foofu rek ngay mën a yem ci wax ci yuuxu ci dénoncer mais tey moom bu ko muggoon def euh, am na légitimité wu def ko il a tous les pouvoirs pour le faire euh, donc doo ci mën dara parce que malheureusement ñun suñu démocratie yi booy booy jiite mm, tout ce qui est pouvoir yow lañ koy yow lañ koy processus normal bu mu mhm. war am. aw pour euh, mun ko am maintenant lan mooy li nga xamante ni moom moo leen moom nga si mënu doo ci mun dara mooy assemblée nationale bi nga xamante ni. fa la loi yëpp di aw lu a def fa majorité mm. mécanique lay nekk boo xamante ni nit yi à chaque fois lu mu bëgg day dem après c'est la représentativité du peuple parce que ñoom lañ fa teg et tout bon après je pense qu'il serait euh, vraiment intéressant ñu xool ban processus la war a am ak euh, sénégalais yi nga xamante d'accord uñ yan recours ak procédé la ñu mën a am maintenant beneen analyse politique bi aussi nit yaa ngi wax le cas Idrissa Seck nga xamante ni moom pouvoir politique am ak euh, la si on fait la suppression des villes ville de Thiès aussi day dem après moom aussi est-ce que c'est pas quelque chose qui va avenir politique am donc vraiment nekk na benn loo xamante ni les gens n'ont pas vu venir dañu jékki-jékki rek dégg projet bi est-ce que am nañ droit def ko gisoon naa mu Ndiaye Cissé invité ko moom il est il fait partie de ces personnes là qui sont contre ça je pense que ce serait bien aussi am si seen xalaat intérêt des war nañ xool président ban yoon la war aw pour ko def projet la mais est-ce que mun na nekk wala munul nekk. mu njaay de suñu xarit la ah bijou mm. la moom. merci Thioro ñu ngi lay gërëm. <laughs> ko bëgg. mu njaay ak baax man de bu ma ko gërëmee léegi xam naa mun na maa may billet Dubaï temps yi rek laa bëgg a dem ah bijou ba tey. voilà yara dem fan moom bëgg na maa dem Dubaay daal vacances moo yàlla baax na xëy bu yóbbaale ma bu teraanga Sénégal yi passé dinañ dem Dubaay <laughs> merci Thioro c'est c'est bien clair euh, problème mu suppression ville yi euh, xamuñu de toute façon ñu ngi xaar euh, fu war nent di mujjee ki gëtëm euh, dinañ leen présenter dans quelques minutes jigéen boo xam ne jigéenu jàmbaar la moom la ñu tànn tuddee ko de femme the woman of the week mais balaa ñu ci ñu ciy ñëw am na beneen sujet encore bu gën a amati solo Euh, Bijou Sy euh, moo ñu ko préparel mu ngi jëm ci euh, bërki démb xale bi nga xam ni moo faatu woon malheureusement ci crèche ñun ñëpp ñu naqarlu ko après la pluie je sais pas ndax mën naa wax terme boobu c'est boo beau temps ginnaaw émotion yeeg yi ñu ci wax maintenant place aux idées pour xool yan solution la ñu mën a teg pour am ay crèche yu mucc ay parce qu'il le faut toutes les femmes sont indépendantes pour la plupart léegi jigéen yi ñooy pap ñooy yaay ñooy ñoom ñëpp donc du ñoom ñëpp ñooy mën a toog ci biir kër yi euh, yore seen njaboot donc euh, dañuy bëgg quand même ku baax euh, ku leen téyel seen ay doom moo tax souvent ñu jël seen doom yi ndaw yi di leen yóbbul di di leen yóbbu ci ay crèche voilà ñi ñi daan dénk suñuy doom ci biir kër yi amatuñu jot ñoom it dañuy lijjanti seen bopp Euh, bijou on en parle tout de suite voilà fi jamono toll donc quelle solution quand euh, pour ñu am ay crèche yu baax. quelle solution Pape Cheikh que pas que amuñu ay crèche yu baax quand même. fii am na am na crèche yu baax mais mais daf si bëri ñoo xamante ni comme on l'avait dit la semaine dernière peut-être dinañ am amu si xale yi après ñu am benn fond ne léegi man lu ma bëgg a def mooy euh, crèche laay tijji parce que tout le temps dañuy wax ni nit na jël passion am def ko liggéeyam mais nit bakkanam dafa fort donc tey booy tijji crèche surtout xamante ne ay xale yu ndaw la bébé dafa fragile te ci premier euh, jour am yi ci lañ ko mun a protéger ci lépp li nga xamante ne war na ko mun a dal ci àddunaam côté nutrition côté protection li ko war environnement wam mag yépp donc nit balaa ngay tëji crèche dafay am ay conditions yi nga xamante ne dafa war a euh, nekk conditions yépp mat balaa ngay jël ay doomu jàmbur di leen garder ndaxte comme ni ko Pape Cheikh waxee léegi parents yu bari bu ñu xëyee kër gi ñëppay liggéeyi te dëkkeetuñu niñ dëkkee woon avant nga xamante ne euh, kër gu mag lay nekk euh, sa goro nekk fii sa yaay nekk fii say sœur nekk fi wala ñoo xam ne dañ la toppi woon ba nga xam ne dañ lay mun a téye sa doom léegi presque ñëpp seen appart la ñu dëkk donc bu ñu xëyee pour plus de sécurité dañuy jël seen doom yóbbu ko ci crèche yi pour ñu téyel leen ko donc loolu nag bu fekkente ne parent bi daf ko bëgg indi foofu xelam dal mu mun a liggéey war nañu dajale bépp condition bi tax xale bi dina mun a dugg si crèche bi ci jàmm ñibbisi ci jàmm c'est vrai ñi fay liggéeyee bugguñ ñu benn xale di fa dem sa ba sa bakkanam di des euh, ci ci crèche bi mais am na matuwaay yoo xamante ne ñu ko jëlee euh, su fekkee ndogal amul rek xale bi dina mun a ñëw jàng si ñibbi si comme il se doit yan condition la ñu war am avant ñuy tijji crèche euh, waxtaan nañ ci benn expert boo xamante ne mi ngi tudd Ndeye Mathi mbay moom spécialiste la ci petite enfance mu wax ñu booy tijji crèche lan nag lan nga war a mettre en place ba accident su amee sax nga mun ko gérer comme il Bonjour. Aujourd'hui, euh, nous parlerons de la sécurité des enfants dans les crèches. Euh, il faudra, il faudra d'abord euh, parler de l'importance de la petite enfance. Pourquoi amène-t-on les enfants dans les crèches euh, Tout simplement parce que euh, la crèche ou le préscolaire est plus qu'une préparation à l'école primaire. Elle vise euh, cette éducation, le développement holistique des besoins sociaux, émotionnels, cognitifs et physiques d'un enfant afin de construire une base solide et large pour l'apprentissage et le bien-être tout au long de la vie. Nous avons certains avantages pour l'enfant, euh, certains avantages liés à, à, à l'enfant étant dans euh, la crèche ou le préscolaire, le développement de bonnes habitudes, les routines quotidiennes qui aident les enfants à se sentir en sécurité, à développer des compétences en littérature et en calcul et à développer une résilience émotionnelle. Il y a aussi le développement d'un amour d'apprentissage permanent. Cependant, tout ceci ne doit pas se faire dans un environnement qui n'est pas sécurisé et qui n'est pas hygiénique. Les enfants sont curieux et intéressé par les choses qu'il voit et les explore, même s'il y a un danger permanent. Maintenant, en tant qu'éducatrice ou en tant qu'éducateur, tous les matins, avant l'arrivée des enfants, il faut être sûr, il faut faire un contrôle de sécurité de l'environnement. Euh, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'objet pointu ou ca cassable dans la classe qui pourrait peut-être euh, causer des accidents. Il faut aussi s'assurer que les produits d'entretien de nettoyage, les médicaments et autres poisons sont rangés dans un placard ou une armoire et sont bien verrouillés. Les jouets susceptibles de provoquer un étouffement doivent être euh, à hors de portée des tout petits. Ils ne doivent même pas traîner dans la classe. Il faut aussi de temps en temps euh, observer le, le sol afin de, de ramasser quelque objet que ce soit qui puisse, euh, euh, qui puisse être un objet qui peut soit euh, blesser ou étouffer l'enfant. Les étagères et autres meubles dans la classe doivent être ancrés au mur pour éviter tout basculement. Les maîtresses doivent aussi surveiller attentivement le jeu des enfants afin euh, de les rediriger si le jeu devenait dangereux. On doit, euh, en tant que maîtresse dans la classe, se poser la question de savoir, euh, maintenant quand il s'agit de nourrir les enfants, est-ce que toutes les précautions d'hygiène et de bonnes pratiques ont été prises euh, pour pouvoir nourrir les enfants euh, dans les règles de l'art. Ceci est très, très, très important. Maintenant, la formation en secourisme euh, doit être une obligation dans les centres. Un simple, pour terminer, un simple geste peut sauver la vie d'un enfant, la petite enfance, notre passion. Voilà donc quelques règles. xamante ne Ndeye Mathimay mi ngi wax pour rek gën a assurer suñu sécurité doom yi ci biir euh, crèche yi euh, déjà hygiène il faut mu am parce que xale euh, système immunitaire am dëgëragul li ko mën a feebarloo dafa gaaw ba pare il faut que environnement ñu dégager ko ba nga xamante ne lenn du nekk danger ci moom ndax xale dafa sob dafay bëgg découvrir tout le temps te lépp gémmiñam la koy découvrir donc il faut pas que ñu teg affaire yoo xamante ne dafa ndaw même bu fekkee ay parfois ci jouet yi c'est important de xool âge u xale bi tout le temps dañ lay woon jouet bi à de quel âge la ko xale di mun utiliser parce que am na yu ndaw yoo xamante ne xale yi buñ ko jëlee dañ koy wan d'ailleurs am euh, doo def perle doo takk jaaro doo def élastique sa bopp ndax am na xale yu terrible yoo xam ne dañuy buddi per yi wan ko wala ñu xëcc jaaro jàmbur yi wan ko ça peut être dangereux pour ñoom étouffé produit d'entretien warul nekk fu xale di nekk dañ ko war a ne denc pas anodin que ci médicaments yi ñuy bind tout le temps tenir or de la portée des enfants parce que médicament bu fekkente ne feebaroo wala nga jël ci dose boo ci warul jël poison lay ñëw nekk ci yow donc beaucoup de euh, euh, précautions yoo xam ne yow déjà sa kër rek donc ko war a jël waxuma laak nag boo waree recevoir ay doomu jàmbur yu bëri ci benn environnement il faut nga offrir leen ce qu'on appelle un environnement su may joxe exemple am na benn crèche boo xam ne mu ngi fi woon malheureusement nekkatu fi kindergarten bilingual school c'est-à-dire que xale yi même escalier yi ñuy yéeg hmm. dañ si def ay la pour que xale bi bu daanoo tapisser ko ba nga xam ne xale bi bu daano sax du gaañu hmm. def fépp ay caméra de sécurité et puis hmm. forme personnel bi euh, ba nga xamante ne xale bi lépp lu ko dal ñoom dinañ mën a réagir et euh, directrice bi fi nekkoon muy Awa Ndiaye les gens disaient que elle était trop que limite dafa dafay dafay sonnal employé yi mais même sa doom bu xoosoo mun na la wax xale bi ban heure la xoosu ak nan la def ba xoosu c'est-à-dire que sécurité bi yow boo fay teg sa doom da ngay génn ak xel bu dal je pense que crèche yëpp noonu la ñu war a euh, mel ba pare ñu imposer euh, balaa nga koy tijji formation ci sécurité nga am ko ba pare environnement bi nekk environnement boo xamante ne xale bi bu fa demee ci jàmm lay nekk et puis ñu koy vérifier chaque instant ndax entretien bi mi ngi fay am ak ndax personnel bi bu qualifié la il faudrait que gouvernement bi euh, teg euh, spécialiste yu mel ni Ndeye Mathi Mbaye ñu nekk ay consultant bu ko defee booy tijji crèche yow balaa ñu lay valider ni mun nga jël ay xale ñu ñëw vérifier lépp su ko defee euh, lu munul ñàkk rek moo fay am mais di nga xam ni yow teg nga xale yi ci meilleure des conditions je pense que dafa am um, xale moom eh, go ahead dafa am secteur yoo xamante ni je pense que muy éducation muy petite enfance ak yooyu seen ay agrément dafa war a sévère mhm. c'est-à-dire mhm. balaa ngeen formation wala enseignement kenn waru ko monétiser wala mu nekk commercialiser. Mhm. exactement mu nekk ay euh, société d'entreprise à but de faire du bénéfice dafa war a am un fort euh, degré de responsabilité ak ñi nga xamante ni dañ koy ubbi aussi ñu am ay contrat wala ay engagement yoo xamante ni par rapport à la responsabilité des enfants yi ñu leen di mhm. dékk mhm. parce que tey en termes de droit soo waxee dañ naan la euh, homicide involontaire wala genre yooyu parce que l'intention n'était pas là mais il y de la responsabilité éléments yi nga xamante ni moom moo koy favoriser maintenant après au Sénégal duñ ko jël trop en compte mais tey du nekkoon ci yenn euh, dëkk yi. dañuy xool en fait. voilà dañu lay wax ndogal la mais yeneen dëkk yi dañuy xool environnement bi ak cause yi ak li nga xamante ni moo indi lii mais fii tey Sénégal y a de fortes chances ñu ne homicide involontaire parce que l'intention vaut l'action c'est sûr que kenn bëggul woon rey xale bi et tout. mais aussi am na yenn métiers yoo xam ne boo jëlee euh, ni da si siy spécialisé wala da ko bëgg. Mm. wala da nga ubbi dara aussi déjà dañ fay liggéey ñu xam àqu bakkan sans responsabilité. ak seen négligence voilà ak seen négligence lan la leen mën a coûter. parce que tey yow bu la leeree ni doomu jaam boo ko négligé waxuma la ki moom crèche mais yow mi nga xamante yaa yoroon xale bi mm-hmm. instant boobu sa àdduna mun na cee yàqu. Mm-hmm. je pense que di nga xoolaat aussi ni ngay téyee xale mm-hmm. boobu. loolu laay wax Europe par bi a ba pare yow parent bi laaj la yow loo doon def ba xale bi réeree même bu fekkente ne yaa lañ sàcc sa doom wala quoi que ce soit responsabilité bi njëkk yow lañ koy njëkk a teg donc xale xamul dara yow mi ko téye yow yaay responsable euh, ba pare euh, apart from euh, comme am going out of sujet little bit fois nga am sa bon sa kër kooku let's say du xam lu bare bari nan la ñuy téyee xale ak yooyu noonu mhm. and then it's important tamit comme ñu jox ñooñu noonu li nga xam ne mooy formation bi ngay wax man nag si côté lekk xale bi laay ñëw mhm. am na benn daycare Gambia man fa laa doon yóbbu sama doom bi Euh, soo indee lekk xale bi chaque jour dañuy ubbi lekk xale bi xool seet ndax euh, thank you merci euh, dañuy ubbi lekk bi xool lekk bi ndax dafa frais ndax léegi nga ko defar ndax lekk bu fanaan la ak yooyu noonu loolu bokk na si yoo xam ne dañ koy xaw a sàgganee tuuti si crèche yi dañuy jàpp ne parent bi ñu indi rek war na koo mun a lekk dañ lekk sa na la lii jox sa doom pendant mm-hmm. deux mois wala kii baaxul pour moom it's enough ak yooyu noonu it's not only sécurité bi kañ dafa bokk ci li nga xam tamit euh, mooy euh, côté lekk because xale comme ni nga ko Bijou Ndiaye waxee rek it is very very very very mm-hmm. sensitive te ku ba jur doomam mm-hmm. ëmb ko ñëw indi doomam jox la ko pour nga téye ko mm-hmm. kooku noonu am um, daf daf la dénk life am dénk la vie am so you should not mess with it at all voilà Pape donc quelques solutions pour que li fi amoon bañ fi amati parce que euh, ñëpp en tant que parent naqarlu nañ ko Sénégal ñëpp naqarlu nañ ko donc yenn solution yi ñuy proposé agrément yi nga xam ne moom la ñuy jox ñiy téye crèche euh, xale dafa fragile li ko mun a dal dafa bëri euh, donc nañ leen protéger comme ni mu waree. Mhm. ba yaa ngi dàq nit ki nag. damaa sonn ci ñi soor sors et laisse-moi avec le jeu avec le teranga. allez sors je cherche juste je cherche juste la télécommande parce que démb ci guddi rek laa ko taal mais fii TFM. boo boo bàyyee sa bopp sax mën nañ laa jël yóbbu. <laughs> di biig même pas 24 heures démb ci guddi rek. taal naa télé bi bàyyi fi télécommande bi. ay mais trois quatre heures de temps après je me réveille fii laa fanaan <laughs> yow gisuma télécommande bi je te la j'ai la par par par. pars si tu vas pas la télécommande tu auras des problèmes mais merci y a des par contre yu baax mhm. yaa ngi wax léegi euh, awa euh, crèche bi mhm. je te man maa fa dem benn jour jour dama doon reetaan dama ñëw juste dugg ci crèche bi ñu ne ku fay dugg da ngay simi say dàll mhm. ñu am leneen leneen luñ la solal man leen mais yéen pourquoi ngeen sonal nit ñi yéen da ngeen bëggee fu tubaab torop ñu ne ma non c'est des enfants qui sont la ëndaale da ngay sa dàll yi nga dugal ci kër ci biir nga sol yeneen genre euh, je sais a des des enfants yu yi koy jooy ba léegi na Pape Cheikh. Euh, parce que bi sa doom doon am. moo doogi muuñ rek moom na ni doom jaa nga Amérique doom ji nu mu tudd Karima xaw ma. Fakira Fakira Karima xaw nan la tudd eh, Karima. Fakira ma nga ca deekee ba de dama koy woow man deekee <laughs> bi. ñu ne suñu yaa ngi fii ñuy mbootu yàlla teral na la nag. ah mu tamit mbootu suñu doomi dañ leen di mbootu bootee leen sëru Lagos. yàlla baa de sa doom jaa nga ca dekkeer ba ca Amérique amatina ba tey xam nga am ba tey <laughs> man de dégg naa ñi woowee xale bi beneen beneen tur man de Fatou laa koy woowee xale yi daal laa dégg Corombaat Ndiaye ak Bijou Ndiaye ak Fatou Zahra ñuy ay jigéenu Mamadou Ndiaye ñu naan Karima Karima la ñuy Fakira s'il vous plaît Karima xaw ma Fakira tur yooyu rek Karima man de Fatou Kiné laa koy woowee <laughs> ndax maamam lañ ko tuddee Fatou Kiné rek lay dégg xëy na Karima xaw ma kii mais kii yow du wax Karima Karima xaw ma Fakira. xamul nañ ma allez merci Bijou si. maintenant je me retrouve ci foo xamante ni li fi nekk yëpp dañ koy maye. salon bi dañ koy maye téléphone bi dama bëgg daj dajji fold bi. fold bi dafa voilà quoi c'est un bon téléphone mais aw ma droit dajji ko parce que c'est un cadeau lii bu ñu koy jaay sax dañuy préciser scellé. scellé. vous avez remarqué. ñi koy jaay. bu ñu bindee par exemple bu ñu dajjeegul. mooy gën a jar sax que bu ñu dajji ba pare ah. dañuy wax iPhone xawma lan scellé xam waaw waaw waaw waaw. seetlu woo loolu. eh dañuy bind scellé. ba pare dañ la koy préciser man scellé je te jure. c'est ça donc le cadeau est scellé et on vous l'offre au 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 alors bii fold la Samsung fold. bi iPhone 12 Pro Max la. lii pariru or la ñu ngi ko jëlee ci xaadim ña euh, bijouterie bu mag boobu nga xamante ni xale moom la ñu jox bopp sunu frère euh, lii tablette la dañ koy maye yii yëpp ay enveloppe bu xaalis la dañ leen koy wéev lii tamit salon la gis ngeen salon bi kii la kii daal plusieurs couleurs prestige déco lañ ko jëlee salon bi am na luñ ko tuddee aussi ci tubaab xaw ma ne irréversible ah irréversible xaw ma réversible bu la neexee mu beige bu la irréversible salon bi réversible regardez réversible mooy par exemple xam ngeen lii dafa chocolat chocolat mooy marron waaw lii dafa chocolat regardez bu la neexee nga def ko ni mu nekk blanc mais il faut dire waaw. genre vous êtes impressionné quoi. <laughs> manque balaa leen yéen ay journalistes yu soxor ngeen. yéen waaw retourné njëgën naa ah, beige gën a regardez quand vous da ngeen war a wax waaw. comme si da ngeen impressionné. c'est génial leen jouer daal yéen. Oh, dinaa jëli dinaa yeneen acteur voilà et puis njëgën bi ah. regardez bu neexee nga ne nii. Eh, collé ko ci bi. voilà. Oh, oh, oh, oh my God non. et puis voilà tu es bien dans ton salon. te dañ koy maye. te lu métti saa lu métti saa leen di choqué. Pape salon bi dafa nooy na yem naa ko. da nga foog ni benn ubbi rek la. ah déedéet ñaar la. waaw. da nga foog ni lii dañ ci kaw rek la ñuy ubbi. ça s'ouvre en bas. waaw. <laughs> ñun dañuy bàyyi yeew la nii. yéen a télé bi ah. ah. télé kii la télé bi mën nga seetaan YouTube. déedéet Smart TV ah. yeah damay connecté nii. bi ngeen di cotiser di fay ñu leen di ah, ngeen di ay code. Netflix Netflix. non Netflix de. <gasps> Oh, oh my god amazing. <laughs> oh loo bëgg ñëpp dara <laughs> am nga 15 doom dara safu leen dara beesul ci ñoom yëg nañu yëpp yëg yëg yëpp yëg ñu ne dañuy tricher ak man noonu di kii dañ may teg xel <laughs> la waaw ma joué ak ñoom rek nan leen wax leen waaw ma danaan ma ay yow bébé nga bébé Cheikh <laughs> yëg nañu yëpp def nañu guerre yëpp. Mado bébé Cheikh la la yóbbu. xoola ñun nit ñi yëg na yëpp Bijou Ndiaye mais ñoom ñi ma lim daal yëg nañu yék yëg yëpp alhamdulilah rabil alamin mais nee nañu eh, eh, elles sont elles sont elles sont elles sont contentes elles sont épanouies euh, excitées de me voir offrir ces magnifiques cadeaux alors que dara safu leen oh my god Pape ñun ci waxaat sax. seen yooyu neex na ma oh my god oh. oh my god awa oh, gay nag jar na 14 si <laughs> kaw I love your I love your I love my god. Modou ngi wax lu garaaw. lu garaaw la ci la dëkk. allez 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 pour le moment euh, am na lu toll ci trois téléphones xam naa balaa euh, Teranga Sénégal di jeex dina am yeneen téléphones yoo xamante ni dinañu ko jëlee soumari.com ñu ngi leen di gërëm bu baax dinañu ko jëlee chez Jili CSB parce que ñoom c'est des partenaires euh, Wave nag moo ànd ak ñun parce que tous les jours mën naa maye ba un million un million yoo xamante ni. Euh, pour yéen la donc léegi nii ku dugg mën nga am trois cent mille maintenant je vous euh, dama leen di may quand même temps ngeen composé benn ci numéro téléphone yi euh, nga xamante ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi mën naa ci profité dugal benn publicité oui pourquoi pas alors on regarde de la pub et puis juste après premier téléspectateur bi may jël même bu fekkee 500000 ci benn région dañ ko koy may wéef ko ko immédiatement en direct ci télé télévision Futur Média Mm-hmm. après elle va poster ça parce que Marie-Louise nag dafa bëgg jëkkër ji ndeysaan mm-hmm. Marie-Louise euh, journaliste Marie bu Bamba d'ailleurs nee na ma yow Bamba def ma segal ah. sama papa la sama frère la su ma xarit la mm-hmm. ma ne ko yaa ngi mel ni sama papa buy gërëm sama yaay aa <laughs> ah, ma xam nga sa yaay ah sama doomu ndey la <laughs> ma ko affaire la oh, yooyu de la <laughs> ci ay màgg ci tool ni gis nga sa yaay moom sama doomu ndey la very yokkaatal veri bi moog Idda la mel ci ci satu. mais Touré moom mu nowoon nowoon dem na. oh ah. ah ni ma toogee yow man des fois damay foog di maa ngi sama kër. lu ma ci xam lu ma que je suis à la télé ah. <laughs> allez ban téléspectateur mooy dalaat ci euh, trois cent mille par exemple wala cent mille ah euh, boo xamante ni mën ngeen ko am ci euh, écran bi Sophie elle est en train de se préparer moom tamit pour lu mu ñuy toggal Sophie tamit tegal leen ma ko nan la ko professionnel yi tuddee repérage. oui gardel ma ko en repérage gardé leen ma Sophie en repérage Aboulaye on la retrouve dans quelques minutes ci beneen studio bi euh, bu ko defee mu euh, toggal ñu xam nga togg dafa xaw a sensible donc du mm. coup euh, elle est de l'autre côté on la retrouve ah de l'autre côté de la baie vitrée voilà de l'autre côté de la baie vitrée à la cabine technique Aboulaye voilà Sophie yaa ngi nekk repérage ah allez Sophie sama Sophie wala bokk. waaw temps yii nag yëg succès. waaw succès oh, oh. xew baaxul. bàyyi guddal fan rek. temps yii yëg nga succès doom nday yëg succès. ma koy tam gis naa <laughs> allez à tout à l'heure non non bu yeewu leen bi après après tey télé bi du neex parce que Amina Poté day neex télé bi lundi day ñëw ñaari yoon day ñëw 11h ñëw 16h 15h xaw ma sax heure heure kii bi ban heure de mooy 20h fii. ni nga yóbbee TFM ci seen heure yi. 16h c'est la télé sénégalaise. Mm-hmm. miroir du Sénégal. convoque un Sénégalais à 15h il viendra à 18 man mi animé émission bi man mi animé émission yëpp comme par exemple bu ñu ma nee émission 22h lay commencé man 22h laay jóg pour sangu ji <laughs> déggoo ma de seetlu sama émission yëpp day guddee commencé. yu gudd yi. day guddee commencé. xanaa xamoo yeewu leen retard yee tax ñu wàcce ma ba 9h te ba léegi maa ngi tardé. am naa yow midi nga jëm. en temps normal. waaw waaw laa ko daan commencé yéen a ngi fàttali ko temps taw Khadija Dafe. xanaa boobu tëddi leen du matin. waaw Khadija lu Fotol. Fotol mais léegi dégg na Sénégal de dégg na wolof de. je te jure léegi day day làkk wolof bu baax jëkkër ji saaxo la sant <laughs> loo dégg tubaab dégg tubaab boo amee jëkkëru anglais làkk anglais <laughs> of course ma amee jëkkëru njaago saa yoo xëyee di nga ne uleef boo jëkkëru joolaa saa yoo xëyee ne kasamaay kasamaay hmm. tu sais a un dicton qui dit hmm. la meilleure la meilleure manière hmm. d'apprendre une langue c'est par une autre langue Dahu what does it mean? da nga ko translate. ko rafetal. because she speak a big a hot a hot France. waxal ma oh my god. oh my god. sama xol naa ne da xol yaayu Pawlish. aywaay foofu nga fël. yow li rafet na waaye tey nga continué émission bi comme am naa porté du ñëw. moo gën a rafet nag. mu ne la meilleure façon d'apprendre une autre langue. une langue une langue c'est par une autre langue. par maanaam nga nga nekk ak nit. Mhm. di sëy ak moom. Mhm. wala ngeen nekk. ci ngeen mi gën a mën a muy mi jàng beneen langue. dëgg la de c'est-à-dire la meilleure manière. d'apprendre l'anglais. Ouais. c'est d'épouser une américaine. but man I am still trying to understand the français. man nekkul di ñëw. <laughs> yi dafa neex. lii tamit bàyyi li garaaw laa expliqué. tegal clip Pape tegal clip Pape tegal clip ma wax. mais man sama jëkkër français mais ba tey is not coming bu baax. parce que yaa sa jëkkër anglais ngeen di làkk da war a làkk français. Hmm. ah ok. moom moom ñëw. waaw jëkkër jee anglais. <laughs> ba jamono de baax jigéen ay fekki <laughs> man de. man de naa takk jabaru joola. la rek. laaw joola. boo soyez sérieux. soyez sérieux quand même. war na dëgg de mais nag su ma jëkkër daf dee làkk French waaye man mënu ma jëkkër. te may mën a wax ba pare mu ne ko daxu. Allez, excusez notre bonne humeur. 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 am na ñaari sujet yu des waaye xam naa dañ koy mujj lépp bu sport bi dañ koy bàyyi ak Mame Ndoye rek. xam naa tey ci guddi puisqu'il est presque onze heures ou onze heures déjà jot na Mado aussi préparé woon na lu am solo euh, jagleel ko jigéen mais xam naa dañu koy lépp rek ba mercredi de toute façon euh, on n'a jamais assez de temps pour tout fair euh, ci émission bi mais quand nañ jël beneen téléspectateur balaa ñu leen di bàyyi ak Sophie mu tànn beneen région alo allo. kooku. man nanga def. yaak sama yaay Cheikh Ndeye Diagne Gueye yéen a bokk benn tour Ndeye. ah loolu neex na loolu neex na. yow ndey rek la wala ndey jaañ la. nday ah waaw nday jaañ nday jaañ waaw yaak nday jaañ gay bisoori mi ci mbaaw. Euh, ah. yéen a bokk benn tur fooy wootee yaay booy. ay woot est-ce que mën nga soril gémmiñ bi ak téléphone bi. waaw waaw démb am na suma xarit bu wootee mbooro jot nañu ko may trois cent mille suma juumul. démb ci guddee ah, voilà yéen waa mboora moom dangeen ngeen am wërsëgu jot euh, jot ah, TFM waaw waaw Mboro moom yéen am ngeen chance moom lool lool lool sax alo yaay booy léegi euh, lan moo nekk sa xol nga bëgg ñu may la ko salon bi télé bi xaalis pariru or bi wala lan nga bëgg ah, <laughs> bëgg nga xaalis comme maire yëpp waaw maire yi dañoo bëgg xaalis ndeysaan très bien léegi léegi léegi dama lay bàyyi bu la neexee. kenn ci sa doom yi toog ci plateau bi boo ko wóoloo mën na nekk sa joker mu tànnal la benn région boo leen wóoluwul nag nga nga nga tànnal sa bopp région loo loo fekk ci région bi nag yaa ko moom. Eh, doomu Abi ji. chef de quartier bee ko ju dama ne jógal tubarkalla lii mënul woon ñàkk tey dama ne laaw la cat laaw la cat jógal sama waa ji jógal Denise Yoro Ndiaye Baba Yoro Ndiaye Alkumba Famboot Ndiaye sa maama njar mbeew wàcc fenn voilà mbokk ndeyam mbokk ndeyam mbokk ndeyam kii déedéet sax laa dafa sori jëkkër ji anniversaire am la tey du dégg koy wax lu baax ma ngay célébrer moom Cheikhou Kouyaté eh, mbokk ndeyam papis mm-hmm. mbokk ndeyu Émile mbokk ndeyu Joola bi nekk fële Joola bi nekk Italie nu mu mbokk ndeyam ñima dama ne tubaar fakàlla alkumba fa mbooj Njaay sa maama ngi cànd euh, yaay booy nday yaay nday jaañ waaw yaa tànn sa doom bisu pour mu tànnal la région. voilà donc bisu. bisu sa yaay ji la tànn. toilette nga nag. toilette nga de xadi. le noir te va bien. yeah of course. jibi war yokk de. <laughs> c'est vrai les jolies ah. Bambay noonu. jibi. waaw tànn waxal ak sa yaay ji yow daf laa bëgg. Ah. yaay maa ngi lay jëlal jur benn dégg ah, man man samay mbokk Jurbel lañ dëkk diggante Bambey ak Jurbel ak Thiès noonu. ah man diggante ma ah? Jurbel. kon nañ jël Jurbel. waaw baax na. yal naa yow tànn neex na ma. yal naa la jig yaay. amiin amiin waay ñu. balaa bi. croisé les doigts. bon sens. bon sens yaa nekk 500000 waay. bon sens yaay booy. bon sens. ana moom. bu jur ñëwee rek bësal mu pose. posal. voilà. yaa booy. waaw waaw. Ah, yaay yaay yaay an say doom. dem nañu école. ah dem nañu école. oh là là yaay dafa neex nag boo dëkkee ak ñun temps da ngay jékki-jékki rek ah saa yoo nekkee ci affaire yaay booy. yaay dafa <laughs> booy. <laughs> yaay léegi moo bijou mën na bës pour ñu xool lu nekk foofu. waaw waaw na waaw. ay ca bësalal yaay ubbilal yaay waaw. 3, 2, 1. Cadeau, 50 000. Ah, 50 000 ah sa doom ji de cinquante mille la la la la kii wal la la kii la moom la la xaw ma nan laa koy waxee am nga cinquante mille yaay booy. Ah, mais yàlla nañ la woowaat ci numéro yi mais wéef ko ko léegi. ma wéef koko ko ani mu ngi ci ginnaaw am na am na ku ko ko mën a yaay na kippaa ñu ñu ñu la xaalis bi léegi am nga wéef. waaw am bien waaw ku amul wéef sax mën nañ la ko yóbbu yónni par code xaaral sa téléphone léegi nga jot message bi. xaar sa téléphone. sa téléphone léegi nii rapidement voilà on appuie bu ko defee nga jot sa. Ah, sa sa message. xoola sa message léegi nii nga jot cinquante mille. Ah, voilà léegi nii sa message mën nga jot euh, euh, cinquante mille. merci ah, beaucoup merci beaucoup Yaay. jot nga ko. voilà bravo merci. allez xadi mën nga ñëw toog ma toog si xadi yow garaaw nga de. baal ma wane waat sañ garaaw gis nañ ko ba pare <laughs> rafet na ñuul na rafet. gis da nga nekk taay fii taay moom. tolloo ni jatulay ah. buur mbaa daan gis nga ko. <laughs> tarkalla <laughs> jatu de la laaw la cat. ginnaaw de la am na na ngeen def ak ci loo leen ne. ak naka affaire yi. waaw waaw ak mbaa jàmm nga fanaane yëpp jatulay am na ko. allez beneen téléspectateur Sophie. Sophie oui ah, ah. Baye. yaa ngi yaa ngi cool. waaw maa ngi dee di cool. waaw léegi ñu jël beneen téléspectateur nga doog a togg. amul benn problème temps parce que décembre la ñu nekk dañuy feetu. d'accord Baye. donc même bu ñu débordé amul problème. loolu dara. on sera pas convoqué par Ndiaga et Bouba. kenn du la woo. kenn ku ma woo ma woo la. waaw waaw. <laughs> loolu dafa leer. ku ma ne allo ma la allo. waaw waaw moo damaa ba pare tey Amina Poté du ñëw. <laughs> waaye yow Amina du ñëw waaye yow. ay. du ñëw tey je te jure gëmuloo ma. a ah, du ñëw tey. barki Cheikh Béthio Amina Poté du ñëw tey. li ngay wax lépp pour man bàyyi dangay ngay tooñ rek. yéen bàyyi leen su ma waxee ngeen jàppe sama waxi bër. Ah. bu naaj bu tàngee mu seey. dëgg dëgg arrêté leen. <laughs> loolu du yoon wasu problème. ku ma woo la. waaw waaw. <laughs> allez ñu jël beneen téléspectateur très rapidement na ñu ñaata téléspectateur nii en direct. just just two. non ah, more. one more one more please one more one more Ba pale baa nga ñooro pale baa nga ñooro <laughs> allo allo tonton Bafte la ma fille comment vas-tu je vais bien ma nièce wootee je suis fier de moi barke Serigne Touba dama kontaan ci sama bopp ma nièce comment vas fan ngay wootee ma nièce Sacré-Cœur Sacré-Cœur 3. oui. côté boulangerie jaune wala côté Mbaye Dieye Faye. Euh, euh, côté cimetière Sandaga. côté. ah côté Kër Jatulay. ci cimetière bi. Tamadou Tamadou xam na sama yaay bu baax. sama mag bi xam na sa yaay. waaw ah, euh, xam na bu baax. je t'entends pas trop bien. ma ñees loo wax nga di tata Mado. ah sa yaay Mado moo koy defar. waaw. sa yaay mooy kan. mooy kan. Jeannette Jeannette sa cliente la Jeannette. waaw ah ça ma fille. loo bëgg téléphone xaalis wala lan nga bëgg ñu may la. téléphone nga bëgg. waaw. d'accord bonne chance mën nga bokk ci ñi ñuy may téléphone fold euh, wala 12 pro max bu la neexee nga tànn tata Mado ou qui tu veux. kan ngay tànn awa. Tata Mado mais Tata Mado tànk yi baaxatul du mën a jóg wala Tata Mado mën nga jóg ma téyel sa micro. allez Tata Mado na dégg ma fii. ça va lu tax demuloo école ma nièce. man. ah. ma nièce. lu tax demuloo école. man bàyyi liggéey. ah ngay liggéey c'est bien pour jox dara sa yaay. fan ngay liggéeyee ma nièce. ah gourmandine mooy fi ñuy jaayee gâteau yi. Mhm. c'est ville non ñun de temps yi kaca la ñuy laal yow maa fii. seen i de jabet fa jabet ba yàqu waaye maa fii maa ngi ci suukar yi rek. maa fi allez tata Mado ban région nga bëgg mu tànnal la. Euh, Sacré-Cœur Kaffrine Kaffrine allez euh, euh, non Tata Mado moo war wala moo lay laalal ah moo lay laalal waaw maa ngi culbuté Kaffrine voilà donc c'est beau voilà Tata Mado ubbil na la Kaffrine toutes les régions se mettent en place et Kaffrine va sortir dès que Kaffrine sort Tata Mado va pose Kaffrine <laughs> allez Tata Mado tata Mado ngi nelaw voilà. <laughs> tata Mado elle prend tout son temps. ah mag la. <laughs> j'adore ça. andiwaat ko andiwaat ko dafa neex dafa neex lii mooy musique gu teranga Sénégal maa fii xaaral seen jaay day dafa biir je te jure. <laughs> allez ma fille Tata Mado moo la tànnal afa yaa tànn nga jox ko léegi ñu bàyyi Tata Mado mu ubbil la Kaffrine allez Tata Mado ubbil ko Kaffrine et on décompte 5 4 3 2 1 voici ton cadeau ah. deux cent mille. waa deux cent mille. eh ma nièce. eh tu es contente. Il y a de quoi. <laughs> xam naa ñëpp Tata Mado la ñuy tànn. non tey bés bu baax bi la. Bijou Ndiaye cinquante mille. bàyyi Roubé. Tata Mado. je t'en prie mon gars. eh dama koy fekkee. non. grâce à. grâce à Bijou mère bi am na cinquante mille. ça c'est dans les annales mais grâce à Mado. ma nièce tu as deux cent mille. te amoon na ko waaw ah, sa téléphone. jox ma ma la ko léegi. waaw am nga wéef sa téléphone. par code. par ma defaral la ko par code. ah mes amis love derrière je vous entends plus est-ce que vous pouvez régler le problème de l'oreillette euh, euh, euh, <coughs> mille nañ ko ko yónnee léegi nii la la la la la la nañ ko ko wéev voilà sa xaalis yaa ko cent mille ah, eh, lii neex na de ah, si yow yaa nag naan waaw sama yaay xam nga man waajur bella non j'adore ça j'adore ça donc 200 000 euh, Tata Mado euh, sama doom bi woote léegi am na 200 000 euh, ma fille ma nièce oui ma nièce jot nga message bi waaw jot naa message. liiral non attendez elle va lire elle va lire. de recevoir deux cent mille francs. non lii lii lii tout le texte. Sénégal. binduñu ci grâce à Tata Mado ci suuf. allez félicitations ah, merci. dañ la war a jox ngay jox sa yaay. merci beaucoup. ñaata ngay jox sa yaay. sama yaay. Hmm. <laughs> dafa tuuti jox ko jox ko cent cinquante yi jël cinquante yi. tu verras jël cinquante doo ko réccu. waaw d'accord amul cinquante tu verras tu auras plus d'un million balaa semaine bee jeex. voilà vas-y ko doo ko doo ko réccu. allez ma fille. rappelle rappelle tu veux. allez ñu jël beneen téléspectateur coupeel ñoom tonton moom Mamadou Ndiaye ñu tànn leen aussi coupeel am nga deux cent mille allez beneen téléspectateur na dugg léegi nii ñu tànn loo ko euh, balaa ñuy tàggoo en attendant Sophie euh, fu togg bi toll euh, pendant que téléspectateur yi di dugg waaw ba Cheikh comme ni ñu ko waxee woon rek tey nag sapin de Noël à la mortadelle moom lañ leen andil déjà commencé woon naa nag li nga xam ne mooy préparation au plat du jour bi découpé nañu mortadelle bi en petit ba mu sew la ñu ko def am nañ fi nag li nga xam ne mooy karoot comme nag waa Dieye Global Food ñoom dañuy andil aussi ay carotte moom la ñu jël rek Baye Cheikh daal di def euh, benn trait d'huile jël li nga xam ne mooy carotte bi euh, sauté ko ci ba mu am couleur ñu daal di jël tomate cerise bi moom tamit émincé ko ba mu sew def ko ci bàyyi ko nag ak moom mu ñorandi moo ñu jox euh, résultat bi de l'autre côté aussi euh, am nañu li nga xam ne mooy piment de Cayenne piment de Cayenne nag soo ko déggee Baye Cheikh xam ni que day relever goût ni muy joxee couleur togg bi noonu lay relever li nga xam ne mooy euh, goût togg bi moom nag lañu fi def trois couleurs yi jaune bi ak vert bi ak rouge bi moom la ñu jël moom aussi daal di koy découper ba mu sew daal di ko ci nag def togg ko ak moom ba am résultat bi fii nag am nañ fi benn œuf entier moom la ñu battre à l'omelette moom la ñu teg de côté damay ñëw rek euh, jël tuuti ci samay épices daal di ci sotti tuuti ak suñu defee nii dañuy ñëw rek daal di koy mélanger gis nga nag euh, fii dañu am nag euh, pâte brisée pâte brisée bi nag soit mën nga ko defal sa kër wala bu dee da nga yàkkamti mën nga ko jënd pourquoi pas ci grande surface yi nga xam ne dangay ñëw rek moom dafay ànd ak benn papier euh, de cuisson boo xam ne moom rek ngay ñëw étaler ko ci plaque booy dem buy dem au four de préférence nag pour four bi da nga koy préchauffer à 180 degré nga xam ne boo defaree li nga xam ne mooy sapin bi da ñëw rek dugal ko ci def tuuti nen ci kawam bu ko defee mu daal di ànd ak moom am couleur bu doore li may def nag bàyyi mooy ñëw rek jël sama mélange de carotte ak tomate cerise ak piment de Cayenne bi moom laay euh, jiital gis nga nii moom rek laay jël daal di koy sotti ci kaw pat bi suñu defee ni nag ak même cuillère bi laay jël daal di koy étale ci digg bi gis nga nii mu bañ a déborder parce que dañu ko bëgg a découper ci kanam mu daal di jël euh, forme sapin gis nga suñu defee nii nag ba pare dañuy ñëw rek jël mortadelle bi man nag tey dama choisir mortadelle mais su la neexee mortadelle bi mën nga ko changer pourquoi pas nga jël blanc de poulet wala nga jël viande hachée wala nga jël tuuti fois bi nga xam ne waa Dieye Global Food ñoo ñu koy àndil moom it daal di koy découper ba mu sew daal di koy sotti comme man ni ma ko defee nii wala tamit rek nga jël jambon de fumée wala pourquoi pas nga jël saumon mélanger ko ak moom fii nag gis nga am nañ fi fromage bi nag mooy fromage bi nga xam ne waa Dieye Global Food ñoo ñu ko andil fromage marketement bi moom laa jël daal di koy râpé ba am résultat bu mel ni moom laa jël rek moom tamit daal di saupoudré voilà gis nga nii rek suñu defee ni nag ba pare damay jël rek benn grande cuillère daal di koy étaler carrément. voilà gis nga nag suñu defee nii ba pare soo xoolee ñaari pat feuilletée la ñu am damay jël beneen bi ci des moom it daal koy ñëw étaler ko ci nànk ci kawam voilà gis nga nii rek dañuy ñëw rek daal di ko ci teg nii bu ñu tegee nii rek dañ koy dindiwaat bi gis nga ni mu daal di fermé wu ci kawam voilà lii mën nañu ko teg ni gis nga nag suñu defee nii ba pare dañuy rekk daal di jël suñu benn paaka. daal di génnee li nga xam ni mooy piewu sapin bi lii nag moo tax ñu naan sapin de Noël ñu daal dagg extrémité bi daal di koy teg ni bii tamit ñu découper rek moom it daal di koy teg ni déjà da ngay gis ni commencé na jël forme sapin ñu daal di dagg côté bi waala nii rek daal di jëlaat beneen côté bi moom it découper gis nga nag nii soo ko defee rek da ngay gis ni commencé nañu di am li nga xam ne mooy forme sapin bi su la neexee nag mën nga ko découper mu def euh, genre kii arbre su ko defee nga mën ko tiirewaat gis nga nii rek ñu jël couteau bi daal di dagg ni même chose la ñuy continuer gis nga nii man nag de préférence damay préférer bàyyi ko nii daal di koy badigeonner euh, nen bi nga xam ne aussi dama ko battre à l'omelette bu la neexee aussi mën nga jël extrémité bu nekk nga daal di koy tourner mu mel na genre tresse mais man dama koy bàyyi nii rek mu simple nga xam ne boo ko dugalee ci biir dafay am euh, day am volume daal di jóg su ko defee nag ci kanam rek ñu daal di ñëw euh, jàll ci li nga xamante ne nii nag mooy mooy touche finale bi nga xam ne moo gënal ñëpp gis nga ni nii rek la ñuy def mën naa jël. cuillère bu mag bi daal di étaler li nga xam ne mooy suñu nen bi nga xam dañ ko baat à l'omelette de préférence nag nga jël pinceau mooy gën voilà gis nga nii rek ñu am sapin bi fekk na comme ni ma waxoon rek préchauffé nga sa four à 180 degré loolu nag daf ci am solo parce que mooy permettre soo dugalee pat bi rek automatiquement dafay ànd ak tàngaayu four bi daal di ñor li def rek mooy yëkkati suñu sapin nànk daal di koy euh, dugal fii ci biir voilà. voilà gis nga nag bu ñu ko xasee ba dugal nii parce que pâte brisée bi nag moom dafa oyof euh, à 15 wala 10 minutes dafay ñor su ko defee ñu daal di koy génne defar naka benn sauce cocktail bu simple boo xam ni ne ketchup lay doon mayonnaise ak un peu de moutarde daal di ci sànni tuuti persil coréen wala pourquoi pas nga def euh, tuuti au lieu de persil coréen nga daal def euh, laurier en poudre wala nga def li nga xamante ne ni mooy tuuti jingeer mélanger ko ak moom su ko defee nag moom ngay trempe moom lii bu ñoree moom ngay génnee tremper tuuti rek mu ànd ak moom mu nekk benn repas de fête boo xam ne pourquoi pas dafay neex xale yi neex mag ñi bàyyi nag lii nag moo nekkoon plat bi nga xam ne moom laa leen andil tey four bi nag dafa teel a yuuxu mais nañ ko chronomètre waat rek bàyyi ba ci kanam voilà ci kanam tuuti rek bàyyi mu daal di ñor ñu daal di ñëw rek jàll ci li nga xam ne mooy dégustation plat du jour tey bi bàyyi Cheikh. ok. taay yëg nga yëg yëg sa aar xaw ma nan lañ ko yëg nga succès. waaw Baye taay damaa yëg succès. da nga da nga mel ni cokoro pole ping pong à <laughs> tay da nga mel ni cokoropole kon yegg naa foofu yëpp jaag jaagi cokoropole ilaa pipi naana ilaa tamboy ba tey baax na ilaa pipi naana voilà ñaata ñaatam nag ñëw na moom ah. on va la trouver dans quelques minutes. d'accord Bachir voilà <laughs> ñi mu àndal nag man xaw ma seen ay tur. ña man daal leer na ma ni moom ñaatam moom. elle est en place. na daal waaw man leer na ma ni ñaatam ñëw na. ah kon nañ toog buñ gisee. ñaatam xëy na dañ gis ñeneen. xam xaw ma turam man daal leer na ma ni ñaatam ñëw na. sa fi sa fi taay da nga da nga da nga da nga yëg succès. nag teg ci nag ñu tuusee ma ay tenue chaque jour ma. tuwaale sa équipement yi daf maa jaaxal. <laughs> chaque jour ma tuwaale tu sol bu bees. yow de man nag maa jaaxal da ci da nga da ngay ba def ci toge. gis nga lool daal dégg tubaab te xam mooy toge. <laughs> xale yi dañoo foogoon ni xaw ma nu ma xam ne mi tudd. <laughs> fekk yaa leen ko gën a xam mu leer ma ni toge la tudd. te gis nga ni dama koy dëngal droite su ma neexee ma yóbbu ko gauche. Sophie eh, Sophie sofi te kat damay ree di jàpp sama gémmiñ di wane jaaro bi ba takk ak sama montre xam nga musuma reetaanee nii waaye léegi damay ree naan <laughs> yenn saa yu ma ni nii <laughs> malaado laa takk bàyyi succès bi foog nga dund man. non je te jure man tamit yëg naa succès de. yow man rek ñu ànd xàppi. <laughs> malade la takk bisu malade la takk à tout à l'heure Sophie. d'accord allez merci nañu jël benn téléspectateur après li ci des ñu bàyyi ko ci yeewu leen plus bi euh, bu ko defee ñu continuer jox leen euh, ay euh, ay cadeau et eh, Viviane. xam ngeen damaa bëgg Viviane man damaa bëgg Viviane ba damaa mujj rus. damaa rus sax est-ce que xam nga ni day génn clip bu bees suba. déedéet regardez le teaser. xamu leen ban clip la en réalité. xamu leen ban clip la ban way la. ku yow ban way nga xalaat may mën a. mooy bi mu naan xaw ma lu rendi réel wala boobu am na clip. rendi bëgg a lu rendi réel yenn saay yenn saay yenn saay yenn saay defal yëfu bandi tasaare arsenal eh, tas <laughs> boobu nga jàpp ok yow sa way bi mooy. jóg liggéey yow jóg liggéey mooy nangul ma. nangul ma ni saxal man maa fa waxal sa gars yi star xaw ma. ku xam li la la góor ma ku xam li la la wa neexal la ku xam li la la wax ku xaw li lan laa ma dee xalaat dara dara sonn naa ci sag bi ci muñ lu mel ni may laaj li lan laa man dama ci sag bi ci muñ lu mel ni may laaj li lan laa baby nangul ma waxa sa gaay yu may sa star tega si gi xool ma yeah Modou Balé ah, la journaliste la te dafa sérieux déontologie du ko permettre muy lâché wu ci ah. plateau bi mais monsieur Ndiaye euh, vous connaissez euh, euh, vous connaissez les chansons de Viviane oui bien sûr ma ne sport ak musique xam nga dafa ànd waaw mais yéen da ngeen xam nga yéen da am problème journaliste bu ci lâché wu rek boo demee rédaction dañ lay dóor naan la wuy ci plateau bi nga nekk geen <laughs> ah non mais oui du fucking quoi du fait ñoom Pape Cheikh yàq nañ quoi. <laughs> <laughs> c'est vrai que. Pape Cheikh yàq na leen quoi xam nga un peu de correction quoi déontologie mythologie grecque. ils disent tout tous les gros mots sortent dans. <laughs> dina mel ni bi ma nekkee ci benn rajo xam nga man je suis dans toutes les sauces. man daanaka chef de bandi may mujjee dee ci ci film yi. <laughs> mais di nga dee rek. film damay ñëpp dee. film ma joué yëpp maa ciy mujjee dee. télé yi ma jaar yëpp non c'est vrai. jot wax astafurlah parce que acteurs yëpp dañuy dem. may def journal. journaliste yi ma bokk rédaction bu ñu mënoon jam seen bokk bopp paaka bu ñu mënoon xaru dañuy xaru. te xoola ñoo mën naan ay belle voix. tu Pape yaa dëgg tubaab mais xoolal ñoo may réunion seen biir mais je peux rien ban way Viviane moo la neex. non mais jóg liggéey ah ah lu rëy xam way bi boobu laa boobu laa boobu nee na bi muy wax nii xam na way bi de da koy déglu ci otoom. lii mm, xam way man damay déglu eh damay déglu musique bu baax. mais tu dois connaître le titre de la chanson. libre sois libre. mais je suis libre man. je je veux rester libre. <laughs> et m'envoler vers le ciel. ñëpp xam nañu man dama libre sama liberté kay kenn du ma ko. xayma way bi nu mu tudd kon. bi may mën a eh, eh, non clip bi ma wax. effectivement bi may mën a wax la sama xel ah. dem. ok boobu nga jàpp ni moom la. yenn saa yenn saa yi ok Bijou Ndiaye doomu Viviane yow mi bëgg Viviane nga ne mën way la clip bi yi dépassé na. nee nelaw jógal dem liggéeyi ah, ginaar yi saf na ngay nelaw jora dem liggéeyi na ah, waaji kuy soog a yeewu la may nelaw ku ñàkk jariñu am fay bon yow boobu nga foog Amadou Ndiaye Missane Ndiaye Corobane Ndiaye. je pense que bii wax moo gën a moo gën a njuru un peu ak ak ak hiver bi. ok awa gaay. Euh, man I think it has to do with poverty. ok poverty mooy ñàkk. ok you know so um, I will go with uh, rëcc naa rëcc naa rëcc naa la. xam nga ne rëcc naa la. because soo xoolee uh, the key of the song. Uh, mooy um, the poverty. parce que kooku comme uh, um, dafa ñàkk. parce que tamit you know. Um, maybe mais est-ce que loolu la. nuyul ma naar. <laughs> sama loxo. really. intelligente. xaw na fi nga xalaatee c'est ça. Eh, eh, man xaw ma woy bii moo tax. rëcc na mu ne mu ne mu ne foogoon ne yo oto bu tegu si yoon. ak mosoo foog ne dina yegg si fii ak yooyu. aha. merci. ah xanaa doo déglu Viviane. ah waaw waaw waaw dañu xaar ba rëccinaa bi ñëw dañu war a tàggatoo aussi dañu xaar rëccinaa bi ñëw. je découvre le xam nga moom. ce que xam ngeen ni way bi mu def clip. suba lay génn. waaw woy ci boppam. Ah. ah woy bi ci boppam. est-ce que xam ngeen ban woy la ah kon ci album si ci album bi la. ah kon clip bi. parmi woy yi ngeen wax yëpp benn woy woy bi mu ngi ci moom la clip bi. te clip bi exclusivité bi suba la ok léegi ma doon leen ko en exclusivité comme ça yéen ñi def yeewu leen ñii seetaan yeewu len rek ñooy xam ban clip la clip. te Bamako la ko demee jouer yu vous ngeen di gis yëpp c'était à Bamako xam naa jox ne leen Médina ak certains quartiers mais Bamako la ko jouer clip bi génn te effectivement rëcc Regina, Regina, Regina, Thank you. Thank you so much. balaa ñu leen di bàyyeek uh, uh, ñaatam. ñaatam lañ leen di bàyyil ñaatam voilà ñaatam moom pare na vraiment. ak kan ñaatam. ñaatam sama waaj damaa gis kenn samay bët baaxatul. man damaa am vision kii am na nu mu tudd daal. vision benn personne rek laay gis man. comme ni nii apparemment y' a plusieurs personnes derrière moi de, de derrière les caméras mais man Père Assane rek laay gis nii. man Père Assane Ndong rek xam ngeen Père Assane Ndong moo jur ay Ndong. ah waaw xam ngeen lool. mu rafet mi ay peera rafet ci doom <laughs> neex a ànd te peer ko barayam bi doo ko jox ku jur ay dondong ay amina ndong affaire ah he has nice eyes Aïda she's she's she's very rafet ay peer bëgg de père naka jekk <laughs> ay père Assane Ndong yow père yaa jur Amina yow. <laughs> Eh. il fait de beaux kii eh, bravo père Assane. li ma ne woon Bouba Ndour keroog loo def nit ñi rek. gis nga gis nga Zeyna elle est trop belle. <laughs> boobu nag mais papa yi ngay wax papa yi ngay wax yi ngay maa xam fi ma koy jaar pour dagg xol bi day jékki-jékki ba ne ko buuba gis naa Zeyna maa na a taay Pape dafa la jox demande d'explication. <laughs> allez on prend nos téléspectateurs mu tànn joker yi. <laughs> joker ñun ñëpp ay joker lañu. Mhm. ku ngeen bëgg mu laalal leen rek mun na leen laalal. bu leen jigee mën ngeen am lu baax bi ma doo laalee bi mu laalalee ki léegi kooku mille lañ ko may Liss Ndiaye bi mu laalalee ki woote mille lañ ko may allez donnez-moi notre téléspectateur je hors sujet ma bi pa lu tax bokk a porte la nee na porte na pas la grande la la ganeen na xale yi joué ay yow tam dam dañ koy Ka. <laughs> waxal ca kaw. doomi Bira Baar ba tëgg ajatu la ma caam. doomu Fat Samba ngi. yii waaw waaw yaa ngi oh, seeti. oh mbokk ndeyam kii anniversaire tey. Ndeye Binta Diagne Binta Diagne. <laughs> lay doon. <laughs> ba mu bare doon mooy moom. allez allez allô à notre téléspectateur allô. allo. Ndiaye dañ koy fanaanoo. ah dëgg la moo tax ñu boole koog Mairie Bey ñoo a ànd ci se ressemble s'assemble ensemble moom mairie ñu ngi toj télé bi nag ñoom ñaar ensemble rek de Mairie Bey et de Mamadou Ndiaye allo allo. oui. c'est qui ah. Anta Mbaye. bonjour Bonjour, Pape. Vous nous appelez d'où, Anta? Des HLM. Ah, d'accord. Quel HLM? 1, 2 ou Baye Gaynde? 1. Vous nous appelez des HLM 1? Oui. de la police? Ouais. Près de chez Tiké Ndiaye? Ah, d'accord. Je connais pas exactement. Tu connais pas Tiké, près de la mosquée, c'est ça? Voilà. OK, OK. Ça va? Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous Où je vais super bien, moi, comme vous voyez. Bien, ça se voit. Ah je ouais hein? bien dans l'émission. Ah ben merci, vous rigolez, vous dansez avec nous, hein oui. Merci. <laughs> Il y a des animateurs qui ne parlent pas français comme celui qui anime l'émission La Tamboy. Voilà, il faut parler wolof, je parle wolof. Ah, tu m'as <laughs> tu peux. <laughs> Waa Mbaye ci loolu de Mbaye Mbassou wala Mbaye nga sant ah? nan mbay Ayda Mbay non Anta. Anta Mbay Anta Anta Mbay. Anta. Euh. ban joker ngay tànn wala ya bëgg a tànnal sa bopp wóolu nga ñu wala wóolu woo ñu. kan ngay. non Mado arrêté leen na <laughs> Mado bul jaayooti jar nga. waaw waaw waaw mais wuy ma Maymuna Gueye mu ngi fii Corombaat Ndiaye mu ngi fii mm-hmm. Bijou Sy mu ngi fii Awa Gueye mu ngi fii Mamadou Ndiaye mu ngi fii ñaatam mu ngi fii ak keneen ku jógee RFM <laughs> léegi yow waxal kenn waaw bàyyi Mado tànn Mado tànn na. Mado Mado moom am na ku mu tànnal ba mu am deux cent mille léegi tànnal keneen entre Maymouna Corombaar Ndiaye Awa Gaye ak Mamadou Ndiaye ah, kii de xam naa 2500 la ko dara laal. Thioro attends je t'aide pour ton micro. ou bien oui tu peux venir avec le micro. ñun suñu fii lu micro dafa gudd. voilà allez xaaral ma indi waatal la région Séné euh, enfin carte Sénégal bi yaa bëgg Coro Mbaar Ndiaye ah, ah waaw ok ok léegi Coro euh, tànnal la wala nga tànn ban région ngay tànn allo na tànn région bu ko neex eh? disons Tamba Tambacounda tànnal na la ba saatal Tamba bësal bu baax sa baaraam yi temps dafa kii dafa loof voilà <laughs> jaragoo moo sax <laughs> coro tànnal na la Tamba ay waay yàlla na la coro jik Tambacounda allez on attend la région de Tamba wala pause sur Tamba alors est-ce que d'accord nga ci région bi la coro tànnal na d'accord nga tu maintiens Tamba non non non on va découvrir Tamba après ñu woo ko wéef parce que ñun ku dugg dañuy am numéro téléphone bi ci écran bi ah oui ah, Coro allez kon jëlal Coro sa baaxul de 5 ton cadeau. Ah, Voilà, on l'a rappelé parce qu'on qu'on a son numéro de téléphone. Allô? Allô? Allô? ki woote woon HLM mi wóolu Corom Xar Ndiaye damaa soj ba yàqu allo allo Anta Anta mbay Tambacounda cinquante mille nga ci fekk oui dëkk bi dafa metti cinquante mille quand même baax na. voilà c'est pour toi dañ la koy weev léegi nii j'entends pas Anta mbay ah euh, bu fekkee mu ngi ci ligne bi nañ ko ko weev léegi nii euh, comme ça ñu mën a tàggoo très rapidement est-ce que s'il vous plaît Anta Mbaye mën nañ ko kii comme ça ñu bàyyi leen ak ñaatam euh, Euh, voilà euh, di wow anniversaire yi doog a ñëw nag ça va être difficile euh, pour ñu jàllale ko faut les envoyer à temps a à wan sama yaay ñoom wali woli Kavaye c'est tout ça on n'aura pas de temps parce que photo yi day jóge ci sama téléphone jaar ci fil yi am fu muy dugg dem ci réalisateur bi réalisateur bi am fu mu ko génnee dogalaat ko ci machine bi après mu mën a jàll ci écran bi c'est pas simple quoi donc faut envoyer vos photos à temps a Acha Badara wan sama yaay ji maa ngi lay fóon bu baax yaayu Jëlia ak bébé oui c'est pas une urgence euh, on n'a pas assez de temps lii du urgence itam urgence yaa fii ci perte du sport porte disparu yeeg euh, reportage bi jàllagul ak yooyu Anta oui Mbaye Bigué oui Anta del dégloo sa téléphone euh, Coromban Ndiaye tànnal na la Tambacounda mais Tambacounda cinquante mille moo ci nekk baax na teranga du tuuti. dëgg la la. c'est bien. allez bu la nga woote waat ñu wéef la ko léegi nii xoolal sa téléphone portable yaa ngi jot wéef bi cinquante mille jot nga cinquante mille. waaw mais j'ai pas de verbe par code. waaw dañ la koy envoyé par code. par code. par code. est-ce que jot nga est-ce que jot nga code bi. waaw ah, xaaral xool. waaw wéeru vérifie si namu naa Dubaay nag vérifiel bàkki Serigne Touba dama namu Dubaay ah la la la Dubaay waa Dubaay mi pap ñu ñu ñu ñam ñam ñam mi pap ju ju ju cap cap cap mi pap mais pap su su su ñum ñum ñum mais pap cu ñam ñam ñam mais pap Allez, on va on finir cette émission. Merci à Anta. J'en profite juste pour jàllale ay message perdu de vue euh, la euh, donc ki nga xamante ni euh, jot nañu ko Apulaay on va d'abord euh, jàllale perdu de vue bi nga xamee ni jot nañu ko kii mu ngi tudd vue mais pap su su su ñam ñam ñam mais allez <laughs> Laba Gueye euh, est-ce qu'on peut voir sa photo moom dafa réer ay mbokkam depuis huit ans waaw bi mu réeree ak léegi yàgg na de Laba Gueye dafa réer ay mbokkam depuis huit ans il était vendeur de poissons à Mbour n'est-ce pas alors si vous euh, si vous appelez euh, bu ngeen ko xàmmeewee peut-être euh, mën ngeen woote ci 77 934 19 66 oh là là. waaw. moo tax elle souhaiterait vraiment le revoir waaw ñu ngi ñaan ku ko xàmmee rek depuis depuis juróom-ñett at juróom-ñett quelque chose comme ça mu ngi réer ay mbokkam. Euh, keneen ki ci topp itam euh, il est perdu de vue c'est un jeune étudiant gambien euh, du nom de Hassan Baldé fils de Demba Baldé sa mère Aïssatou Diallo. Euh, euh, bu dee gis ngeen ko on va vous montrer la sa photo dans quelques voilà mu ngi nii moom Gambien la étudiant la euh, bu dee mën ngeen ko xàmmee bu dee xàmmee ngeen ko mën ngeen woote ci 77 512 17 02 wala 77 608 11 89 donc moom dafa réer ay mbokkam mu ngi tudd Labba mu ngi tudd plutôt Assane Balde doomu Demba Balde ak yaayam di ay Aïssatou Diallo allez très rapidement ñu jàllale anniversaire yi en attendant ñu leen di proposer yeewu leen plus bu exceptionnel euh, joyeux anniversaire à Bousso Kandji euh, depuis Touba euh, Bousso Kandji depuis Touba joyeux anniversaire c'est de la part de Lolo Fall madame Diallo Lolo Fall yaayu petit papa ak maam Fatou mi ñu fay bàjjanam ca États-Unis mu ngi souhaiter donc un bon anniversaire à Bousso Kandji depuis Touba joyeux anniversaire à Ndak Fall la meilleure sister du monde la part de de Amina Baye ak toute la famille et puis bon anniversaire à Sokhna Marème Diop c'est de la part de Émile Émile Badiane le grand milliardaire Émile daa nuru ko am xaalis en fait euh, moom dafa joxe xaalis moom Émile Émile boo ko xoolee da ngay am impression ni am njortu bu rafet ci moom mais noonu la banqué Émile euh, qui souhaite donc un bon anniversaire à euh, Marème Diop mu ngi koy souhaiter un bon anniversaire voilà c'est ça Euh, joyeux anniversaire au coach euh, au du coach de kuy kii kii takk brassard nu mu tudd voilà capitaine Kapi euh, joyeux anniversaire donc à Cheikhou Kouyaté ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak ku wér c'est de la part de Fatou Zahra ta fille ak sa jabar yi nga fi am ñoom bijou voilà capitaine ñoom ñëpp ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire beaucoup de bonheur joyeux anniversaire à Cheikhou Kouyaté Happy birthday bébé Abdourahmane Koné c'est de la part de sa maman Sonia Diakhaté et sa son papa euh, Fadel euh, Koné euh, depuis euh, Kër Massar il en reste d'autres ku ci am rek booy tàggatoo nga joxe ko man fii laa mën a yam puisqu'il est 11h47 ñoo nag bàyyi leen ak ñaatam ak mënuma ko bañ a sama doomu ndey la Sidaat Thioune <laughs> <laughs> merci Maïmouna et à lundi prochain inchallah Pape Doudou tu nous manques ma gadi baby Pape Doudou man kenn piis man kenn piis moom commencé naa miin boo demee bitim réew ba miin fa rek. Uh-huh. li ngay li ngay njëkk a def rek mooy. gis gis défaut yi. commencé def Facebook live ak ay film naan wuy senegal xam nga Pape commencé na dugg ci gaam yooyu ah mais tu nous manques Pape Doudou ñu ngi lay béggee bu baax ñu ñu bébé et sa maman madame Thiam. Euh, thank you Maymouna. thank you Pape Cheikh on se retrouve inchallah lundi prochain en attendant mais ma petite sœur euh, Marema style pour la très jolie robe. merci voilà thank you et la belle ta robe

nga xamante ne moom moo di maman euh, la famille ses proches et les gens qui l'aiment également pour lui souhaiter boo gis loo ragal sama mag jooju et puis euh, merci à Dossa Dossa sama sœuru moom itam moom moo ma habillé tey pour la robe je mettrai le numéro de téléphone tout à l'heure Omar Cheveux pour la euh, full lace coiffé par Glam Style merci Modou Ndiaye dommage qu'on n'a pas eu euh, les infos sport mais euh, partie remise la tey ci guddi. sport à la une Mame Ndoye Traoré ak euh, équipe bi yëpp sinon bien avant tout à l'heure tu seras ak Mary Bey. effectivement tey ci mm. guddi dañu am benn invité boo xam ne xam naa yéen ñëpp di ngeen seetaan de ah, jamonoy 2002. ku la lu la ci leer. Kalidou Kalidou Fadiga jigéen ñi. Oh, <laughs> di Fadiga ñii dina leen intéressé euh, bon après après ci kanam di dinañ ci ñëw gis naa waaw jërëjëf Seydou Ba euh, merci tout à l'heure euh, ñu ñëw comme à partir de 13 h heure bu baax bi. ci kanam dinañ ci ñëw ak émission bu mag Mairie Bey li xew ci biir internet bi. entre temps di remercier di souhaiter un joyeux anniversaire mu Maymouna Ba c'est de la part de Fatima Dieng bu record. Mm. Maymouna Ba madame Thiaw ak joyeux anniversaire à princesse Ramatoulaye Sow de la part de toute ta famille euh, Sow depuis Mbao cité Ndeye Marie mm. ak yeneen anniversaire yi xam naa suba rek lay gën a mën a yegg inchaallah voilà parce que dafa bëri et puis jël naa temps bi yëpp quoi grignoté naa temps bi euh, man sax mais man aw ma aw man nii laa mel ngeen baal ma rek man dama ëppal daal man non seulement damay tardé mais sama temps day jeex ma jël temps wu jàmbur yi loolu tam ngeen baalal ma tuddee yow la Pape débordé voilà amul problème quoi <laughs> voilà Xadi ngi lay gërëm bu baax. merci à toi Pape Cheikh. rappeler que collecte de dons pour pouponnière yi mi ngi continuer ñu ngi ci deux cent mille actuellement remercier bu baax ñi nga xam ne jox nañu ay dons. Eh yéen ñi ci des succès de trente sept mille ba deux a mille. ba deux cent mille bilaay amiin waay vingt millions nga jëm. comme ça xale yi mun a am lekk pour vingt millions c'est mon souhait hein. ah oui vingt millions tu auras beaucoup de millions. waaw incha allah xam naa d'ici quelques années dinañ mun a jox xale seen dund pendant un an. wallaay dina ren incha allah. 78 196 34 34 wala 76 198 68 10 nu ma joxe sa numéro mooy numéro yi ngeen mun a amee information yi ngeen mun a defee Orange Money wala Wave pour que ñu mun a dimbali xale yi mun ngeen indi aussi seen don matériel yi fii ci télé bi on prend tout.

277 247 15. waaye. Ouais 77 247. 15 non non parce que je me sa boss <laughs> <laughs> may tàggoo ma jox leen li ci numéro bi merci El Hadj à demain incha allah <laughs> je veux juste en profiter pour souhaiter un bon anniversaire à mon neveu. Euh, Rayan Mohamed Salah euh, c'est de la part de sa maman Soukaina euh, c'est également de ma part donc euh, on t'adore et te souhaite un très bon anniversaire. grandis mon amour et je souhaite également un bon anniversaire à Soxna Fatim Mbacké de la part de Soxna Mam Diarra Mbacké yow tamit ñu ngi lay ñaanal bu baax Soxna Fatim gudd fan ak wér. Euh, je remercie Amadou Borom Wilson Market pour euh, mes chaussures. Euh, vous aurez les numéros tout à l'heure et puis El Hadj Adama inchallah. Merci. All Yes. Thank you so much. Thank uh, a happy birthday uh, to uh, Maggie Spice uh, of the US. di ñaanal gudd fan ak wérgu yaram. Mm. dundal lu bare bare bare bay remercier Human Hair by Amif and Spa. Mm. ci perruque bi and the pedicure manicure dem leen foofu noonu am na arrivage bu bees tàq ngeen woo ko si 77 633 50 94 bay ba ba monde ma indi ma uh, Dr. Mary moom. <laughs> you know yeah. yeah mm-hmm. thank you. allez Apulaay photo bi ma la mujjee yónnee Kani Gueye Papa Gueye xaar tey la anniversaire am démb ak tey yëpp ñëpp a ngi koy ñaanal yaayu Uba ak bébé Fa euh, bébé Ngom euh, c'est de la part de doomam Amina Poté c'est de la part de man mi Kani Gueye Papa Gueye xaar euh, ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire Apu voilà Kani Gueye Papa xaar mooy photo bi ma la mujjee yónnee Kani ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di ko Sonko souhaiter un bon anniversaire Apou s'il te plaît rapidement toi aussi Apou euh, avant de retrouver Ñaata euh, Mbasek Diallo euh, ak euh, Daati Dof wala kii mooy Kani Gueye Papa Gueye xaar kor petit papa yaayu Amina Poté suba xarit xaritu uh, Alsaan Mbay xaritu Sénégal uh, nit ku baax ku bëri valeur farami ci ndeer naataako mi ci mbay laar ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér Euh, Fara loo dund doyul baax mën a dimbali nit mën a taxawu doomu aadama yi donc Kany Gueye on lui souhaite beaucoup de bonheur merci au revoir ciao je suis là allez on enchaîne Aboulaye amul amul seral ah kaana du kaana du seral kaana du seral ba toog superviser leen ñaatam nuyool ma xool no nuyoo <laughs> ñaatam la balle est eh, dans ton camp. jox ma <laughs> topp jox ma kii rek jox ma kii bi rek. ma jox la départ bi ah 5 4 3 2 1 0. c'est parti chers amis auditeurs ñu ngi leen di nuyu. Eh, dara jaawale fii RFM déedéet moo tax ma def la noonu xam nga da nga ni waa RFM a ngi nii ah, toog. non. kenn ku nekk RFM. kii mooy ah, waa ah kenn waaw ok fi mu ne damay tànnaas. chers ñu ngi leen di nuyu mais damay kontaan sama jàkkaarloog yow est-ce que yow doo toog nii. man kay damay di déplacé wu di dem fee. di ñu xool maa ngi nuyu équipe yeewu leen yëpp ah, di leen euh, di leen di leen sargal. ah. ah hmm. mais dama ànd ak sa xarit nag sa doomu ndey yéen ñaar moom ay gaañ ngeen. woon mais li ma wax léegi ni ma sa fait presque plus d'un an gisantewul mais loolu dafa grave da xam nga kañ la ñu gëj a déggante mais nag doomu ndey kenn du ko def noonu de <laughs> daa tooñ nga de ko rek ah. tooñ nga de non bàyyi ko rek ah. ko rek <laughs> mais ba Cheikh léegi ma bàyyi kon ñu dugal billboard bi ngeen doo ko commencé man waaw ñu dugal ñu euh, bi et euh, après on revient di wax téléspectateurs yi dañuy am mbégte ñëw tey ànd ak yéen ci seen yeewu leen plus je suis avec Sidat na Bonjour Sidata. Bonjour Niatam. À tout à l'heure. Dati. <laughs>